الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له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 وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار أيها الإخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mbokki jullit yi maa ngi leen di nuyu di leen ndokkeel ci weeru mag bi nu nekk shahru ramadanil mubaarak di sant suñu borom bi ñu defal tawfiq ba nu mën daje ci barab bu mel nii di benn ci néegi yàlla yi ngir bokk fàttalante suñ mbirum diine buntu waxtaan wi ni ngeen ko déggee ci sas Moussa mi ngi jëm ci ak tawassul anwaauhu wa ahkaamuhu tawassul mooy jottaliku ay xeetam ak ay atteem tawasul nag bunt la ci bunti aqida ci wàllu pas-pas te bunt bu ci rëy la bunt bu ci mat a bàyyi xel la itam ndax lu bari luy am ci ak jàdd ak wàcc yoon ci wàllu aqida ci wàllu pas-pas li ci gën a bari ci bunt boobu lay jaare muy tawassul boobu ak wasila bi nga xam ne bu ñu koy jëfandikoo loola mooy tudd tawassul tawassul boo ko seetee ci mbiri doomu aadama yépp daf ci am ndax looy def lu nekk rek am na loo koy jaare ba mën a egg ca la la tax a jëfandikoo ga ngay jëfandikoo mooyee balay eggale loolu moo tudd tawassul ci luxa la ngay jëfandikoo loolu moo tudd wasila ci mbiri doomu aadama yépp yi aju ci wàllu dundinam mbiri addunaam ak itam mbirum diine bi ñu tax a nag mooy bi aju ci mbirum diine ndax boobu mooy bi nga xam ne su fekkente ne njuumte am na ca rek dafay daldi indi rëq-rëq bu rëy ndax fi mu aju ci diine mooy wàllu pas-pas te xam ngeen ne diine lépp mi ngi tegu ci wàllu aqida wàllu pas-pas jaamu yàlla yépp sartub yàlla nangu ko mi ngi aju ci pas-pas bu wér kon bépp masala bu aju ci pas-pas rek masala bu rëy la bu mat xel la bu baax loolu moo tax kon tawassul boobu ci mbirum diine doon loo xam ne lu jara nafar la lu jar a fàttalante la ci la waxtaan wi jëm insha allah waaye bala ñuy sori ci bunt bi ñu xam lan mooy maana tawassul tawassul luñ ci jublu ci luxa ak luñ ci jublu ci alquran arab rek boo waxee tawassul lu mu ci jublu ak nag baat bi soratee ci alquran tawasul ci làkku arab baat la boo xam ne arab bu piire la du arab buñ jéggi fenn jógewul ci weneen làkk dugg si ci arab waaye ci arab la dëkk rot na ci alquran rot na ci sunna rot na ci waxi arab yi moo xam woy la moo xam wesar la baat boobu dana rot ci seeni wax ñoom nag lañ cay jublu mooy lu lay jegeel sàkku di la ca yeggale tem ànd ak sa bëgg-bëgg ibnul asir ci téeréen bi muy tudde al nihaaya téere luxa la ma cay wax ne al raaxibu kiñ ne day jokk nee na mooy ki xemmem ki am lu bëgg wasiila ba muy la muy jëfandikoo loola mooy ak jege mooy ab diggale mooy lay dox ca diggante ba intermédiaire ba muy jot ba egg ca lam bëgg a yegg wasiila boobu ñu ngi koy jamoo wasail maanaam pluriel bi jamoo bi wasail la fayurus abadi nee na kii def loolu daal kooku moo wut wasila bu ko jëmee ci boroomam tabaraka wa taala wasila itam danañ ko wax jublu ci beneen maanaa boo xam ne day tekki almanzila mooy ab wàccuwaay daraja comme ni mu ñëwee ci xadis bi nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa da cee tuddee daraja bi gën a kawe ci aljanna mu tudde ko alwasila ci lay waxe ne ida samictum almuaddina fa qulu misla ma yaqul thumma sallu alayya fa inna man salla alayya salaatan salla allahu alayhi biha ashran summa salu llaha lilwasila fa innaha manzilatun la tanbagi illa li abdin min ibadillah wa arju an akuna anaahu fa man saala lil wasilata xallat lahu shafaa rawahu muslim wa wa gayruhum ngeen déggee koy noddu wax leen lu mel ne li muy wax ànd leen moom ci baati nodd yi su noddu ga jeexee mu ne ngeen julli ci man mu ne ku julli ci man génn julli suñu boroom tabaraka wa taala dana julli ci yow fukk mu ne nag ngeen ñaanal ma al wasila mu ne wasila kat ab wàccuwaay la daraja la bu ne ci biir aljanna boo xam ne nee na ab jaam rek a ko yeyoo ab jaam lañ ko fa tegal ci jaami yàlla yi mu ne nag maa ngi yaakaara doon jaam boobee moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne koo xam ne yaa ngi may ñaanal boobu da nga yeyoo sama ramu bu yow ma xiyaame di firi ab jumtukaay bu ñuy jëfandikoo waaye fii moom daraja la place la boo xam ne mooy bi gën a kawe ci aljanna moo ñuy wax aati muhammadin lil wasilata wal fadila buñ notee ba noppi ñuy ñaan ñaan kooku maanaa wasila nag ci alquran bu ñu seetee ni mu dikkee ci wàllu loxa bi ci wàllu waxiin mooy firi ni ñu ko xamee rek amul kenn ku ci juuyoo noonu la ko asalafu saalex ak a'immatu tafsir muy mufassiroon yu mag yi noonu lañ firee ñaari aaya yi nga xam ne baatu wasila rot na ci ci alquran baatu wasila ñaari yoon rekk la dikk ci alquran ci ñaari aaya benn bi mi ngi nekk suratul maida di aaya fanweer ak juróom suñu borom di wax ne yaa ayuha alladina aamanu ttaqu llaha wabtaquu ilayhi alwasilata wa jahidu fi sabilihi laallakum tuflixuun beneen aaya bi muy ñëw suratul isra aaya juróom fukk ak juróom ñaar suñu borom di wax ne ulaika alladina yadcuuna yabtaxuuna ila rabbihim alwasilata ayuhum aqrabu wa yarjuuna raxmata wa yaxaafuuna adaaba inna adaaba rabbika kaana mahdura bu dee aaya bu njëkk bi alxaafis ibnu jarir tabari rahimahullah ci tafsiram bi mu firi aaya bi daf ne yaa ayuha alladina sadaqu llaha wa rasulahu yaa ayuha alladina amanu yéen ñi nga xam ne dëggal ngeen yàlla ak kob yonentam ci lim leen xibaar fii ma axbarahum wa waada min a ak lim leen dig ci yool wa awada min al iqaab ak lim leen tëkkoo ci mbugal yéen ñi nga xam ne dëggal ngeen yàlla dëggal yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa ci lim leen xibaar dëggal ko ci lim leen dig ci ak pay ngeen gëm ko waaye ngeen dëggal ko ci lim leen tëkkoo ci mbugal ngir ngeen ragal mbugal moom ittaqullah mu ne ajibu llaha fi ma amarakum wa nahaakum bittaati lahu fi dalik ragal leen yàlla mu ne mooy wuyu leen yàlla ci def lim leen digal bàyyi li mu leen tere jublu ci la topp ko moom borom bi tabaraka wa taala wabtagu ilayhi alwasila mu ne watlubu alqurba ilayhi bil amal bima yurdihi loolu la ko firee wabtagu ilayhi alwasila ay watlubu alqurba na ngeen sàkku lu leen di jegeel yàlla ci jëfe lu mu gërëm na ngeen sàkku luy tax ngeen mën a jege yàlla mën a am ngërëmam ci jëf loo xam ne lu yàlla gërëm la lu yàlla jëf lu la alxaafis ibnu kasir toxal na jële ci ibnu abbas radiallahu anhuma mu ne anna maana al wasila fi l aaya al qurba mu ne wasila bi ñëw ci ñaari aaya yi li muy tekki mooy ak jege mu jële itam lu mel noonu ci mufassiroon yu mag yi ku mel ne mujahid abi wail alxasan abdullah ibnu kasir assubi ibnu zeydin ak ñeneen ñu dul ñoom ñu jële ci qataada mu ne alwasila mooy taqarrabu ilayhi bi taatihi wal amal bi ma yurdihi sàkku leen a jege yàlla ci topp ko jëfe loo xam ne lu mu gërëm la ibnu kasir daal di wax ne hada alladi qaalahu haulaai al aimma la xilaafa bayna al mufassirina fiihi mu ne li nga xam ne nag aimma yu mag yooyu njiit yu mag yooyu surtout ci wàllu tafsir wax nañ ko nee na benn juyoo amu ci mu ne kon alwasila hiya allati yutawassalu biha ila taxsili al maqsud kon daal wasila mooy loo xam ne ci ngay jaare mën a amal li nga jublu kon bu fekkee la nga jublu nag ngërëmul suñu boroom la tabaraka wa taala la ngay jaare ba mën koo am mooy jëfe la mu digle bàyyi la mu tere aaya ñaareel bi abdullah ibnu mas'ud radiallahu anhu leeral na sababu wàccam te ci sababu wàcc googu danañ ci dégge bu baax maanaa mi mu ne aaya bi dafa wàcc ci am mbooloo ci arab yi mbooloo moo xam ne dañ doon jaamu mbooloom jinne mu ne jinne yéen tuub te nit ñi leen doon jaamu ñoom yëguñu ko continuer di leen jaamu alxaafis ibnu xajar rahimahullah ci fatxul baari mu ne istamarra al insu alladina kaanu yaabuduuna al jinna ala ibadati al jinn mu ne nit ñooñee dem jaamu jinne yi dañoo continuer di leen jaamu wal jinnu laa yardawna bi dalik mu ne jinne yi nag bëggatuñu jaamu gañ leen di jaamu li kawnihim aslamu ndax ñoom dañoo tuub bëgguñu ku leen jaamu mu ne jinne yooyu nag ñoo mujj ñoom sax di wut wasila lu leen may seen ngërëmul borom tabaraka wa taala moo tax suñu borom tabaraka wa taala di wax ne ulaika alladina yad'una ñooñu ngeen di woo yabtaxuuna ila rabbihimul wasila ñoom day waxuma di leen mën may li ngeen bëgg waaye ñoom sax ña jaar ci yoon wu leen may ngërëmul yàlla ñoom seen bopp lañ tal waaye yëmul ci jinne yooyu képp koo xam ne yaa ngi bokkaale koo xam ne nit ku baax la mel ne isa ibnu mariam lu mel ne Uzayr ñi leen di woo di leen bokkaale ñoom itam day dugg ci aaya bi ñooñu muy woo moom ñooñu ñu ngay wut lu leen may seen ngërëmul boroom la ñuy wut ñoom kon ñoom bëgguñu ku leen jaamu bëgguñu ku leen woo ba tax borom bi ne ñi ngeen di woo day ñoom yabtaxuuna ila rabbihim alwasila ayuhum aqrabu wa yarjuuna rahmata kon loolu day tegtale de ki ngay ñaan di wékk say mbir ci moom te fekk ne bu dee ku gindiku la moom moom ma ngay góorgóorlu ci jaamu yàlla ma ngay ragal yàlla ma ngay jàng alxuraan ma ngay naafila ma ngay yaakaar yërmande yàlla xool kon kooku boppam la tal waaye nekkul di wax kenn ne moom boo ko yaakaaree wala boo ko defee wasiila moom mën na laa eggale ci li nga bëgg ci am ngërëmul yàlla ndax moom sax amagu ko loolu lay wut moo tax ma borom bi ne wa yaxaafuuna azaba ñoom sax dañuy tiit yàlla ñoom ñooñu ngeen di def wasila ñoom sax dañoo tiit mbugalum yàlla ndax inna azaba rabbika kaana mahzura kon aay bi tontu la fekkee ci jinne yooyu la wàccoon it maasale na ci képp koo xam ne am na ku muy def wasila ku muy jokkoo ci moom jàpp ne jëmmi kooka wala ngërëmul kooka rek mën na koo eggale ci lim bëgg ci ngërëmu suñu borom tabaraka wa bu fekkee kooka ku gindiku la ku jub la bu boobaa moom moomee moom ma ngay wut lu ko eggale ci boroomam tabaraka wa taala lu ko may yërmandeem lu ko musal ci mbugalam bu fekkee ka muy bokkaale nag ko sànkole na moom ah boobaa ñoom ñaar yépp nag ñoo bokk sànk te boobaa kon ca la gën a tee perte ndax ñaare ñi am xel ka ñuy def wasiila boobu ko ñu yaakaar ci moom ak mbaax lay doon nga ñu jël ay saa ni mu toll ab yonent ñu ne ñoom ci lañu wéer seen mbir ñee jël Usayr ñee jël ñeneen ñoo xam ne daal yaakaar nañ ci ñoom ak mbaax def leen wasila boobu suñu borom nag tontu leen ne leen ñooñu ngeen réyal ba jàpp ne mën nañoo dox seen digganteeg yàlla ñoom day yad'uuna ñoom day yabtaxuuna ila rabbihimul wasila ñoom seen bopp ña ngay sàkku lu leen jàllale kon li muy tekki mooy eggagul ki nga jàpp ne man na laa eggale te fekk moom eggagut mën na laa jox li ngay wut te moom amagu ko mën na laa may li ngay yaakaar ndax yërmande la ji yaakaar te ñii ñi ngi koy yaakaar ñoom it wa yarjuuna rahmata mën na laa musal ci mbugal te moom it mi ngi ragal mbugal wa yaqaafuuna azaba kooku kon li muy tekki mooy kon boo ko defee wasila loolu njuum sa lay doon al wasail nag muy yi ñuy jëfandikoo moyens yi li lay tax a egg ci li nga jëm dafay séddal koo ñaar dafa am yoo xam ne kawniya la am yoo xam ne shar'iya la al wasailul kawniya mooy moyens yi nga xam ne yu naturel la yu mel ni yi jëfandikoo yëpp ay moyens la yoo xam ne ni ñu ko bindee rek ni ñu ko defaree rek noonu la ñu koy jariñoo wasila kawliya muy moyen naturel yi muy bépp moyen boo xam ne rek mën na laa eggale ca la ca jublu ca na mel moom nañu ko bindee nañu ko defare loolu nag jëfandikoo moyen yooyu moom ku gëm yàlla ku gëmul yàlla ñoo ci bokk yam amul tàqale mi ngi mel ne ndox wasiila la ngir màndi ngir jël ndox di naan da ngaa mar léegi bëgg nga mar moomu faju lan ban wasiila moo koy faj ndox yàlla moo ci def lu tax mu mën a faj aw mar kooku moom ñépp a ci ku gëm yàlla ku gëmul yàlla doomu aadama bay yi maag yépp rek ku jël ndox moomu rek boo maree boo naanee da man naka noonu ñam moom itam wasiila la ci reggaay su fekkee da ngaa xiif nga bëgg a moo lay xamal ne ñam bi rek taxul laa jóg wasila la ndax boo reggee rek bàyyi doonte ñam bi des na fi fekkoon ne ñam bi rek la tax a jóg moom doo bàyyi da ngay dem rek waaye daa am loroon faj rek bu fajoo nga bàyyi kon naan bi it boo màndee rek bàyyi léeg-léeg sax ñu andil la ndox nga ne maruma wala ñu andil la ñam nga ne xiifuma kon wasila bi boo ko aajowoo rek nga koy jëfandikoo waaye boo ko aajowul doo ko jëfandikoo boo ko aajowoo yépp bu aajo ja fajo nga bàyyi yooyu wasila kawniya la moom suñu borom moo ko ci bind ci noonu du sharciya waaye kawniya la naka noonu ak col li ngay sol ngir mu fegal la ab sedd wala fegal la tàngoor yooyu itam wasila kawniya la mën naa jëfandikaay boo xam ne bu naturel la ba ci juddukaay bi yépp yi jëfandikoo oto yeeg waruwaay yeeg micro yi ñu jëfandikoo yépp ay wasaa'il la yoo xam ne danga bëgg sa kàddu xumb moo tax nga jël ko di ko waxe loolu lañ koy doye kon wasila la pour eggale la ci sa jubluwaay boobu amma al wasila charia nag wasila bi nga xam ne nag moom charia la moo mooy bépp sabab boo xam ne mën na laa eggale ci li nga jublu waaye nag jaare ko ci sharia bi nga xam ne suñu borom daf koo leeral ci alquran leeral ko ci sunna yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wasila boobu nag ñi gëm yàlla rek ñoo ko jago ñoo koy jëfandiku ndax ñoom ñoo ko gëm ñi gëm yàlla di topp ndigalul yàlla ko yonentam bokk na ci ay misaalam an nutqu bi shahadatayni nga yi bu àndeek sellal loolu wasila la ci dugg aljanna wasiila la ci dugg aljanna boo tuddee ñaari baati seede yi tem ànd akub sellal ndax boo ko xasee tudd tem dëggu ci yow nga def la mu laaj lépp nag ñaari baati seede yi boo leen tuddee rek mbooleem la suñu borom tabaraka wa taala digle ci jaamu yàlla yi yépp a ngi ci biir ndax ñu ne ci biir li mu tere yépp itam daxa ñu ne ci biir moo tax boo ko tuddee itam dëggu ci yow rek addis yu bari ñëw na di wax loolu man maata wa huwa yaalamu annahu laa ilaha illa allah daxala aljanna ko faat na jamono bi may faatu xam na dëgg dëgg laa ilaha illa allah nee na day tàbbi aljanna kon tudd ñaari baati seede yi muy am tawxid sabab la ci dugg aljanna sabab la ci mucc ci safara ci béel ci safara naka noonu def rëcc rëcc loo war def gaaw tuub ko def lu rafet teg ca loola da koy far yonente bi alayhi salaatu wasalaam moo ne wa atbii sayiata alxasanata nga lu ñaaw nga bëgg defal lu rafet borom bi wax ko ne wa yadra'uuna bil xasanati as-sayyi'a ñi nga xam ne fu ñu defee lu ñaaw dañuy daal di def lu rafet tuube ko ko su ko defee lu rafet li day far lu ñaaw li inna alxasanaat yushibna sayiat inna alxasanaat yushibna sayiat yu baax yi suñu ñëwee dañuy dàq yu ñaaw yi kon nit ki am ay ñaawteef wasiila ba muy jëfandikoo ngir bëgg ñaawteef yooya far ñu baal ko ko mooy na def lu baax na def lu baax moo tax gis nga Xaalid ibnu Walid bi mu duggee ci lislaam radiyallahu anhu te xam ngeen ni mu jàmbaare woon ci wàllu xeex bi mu nekkee ci kéefër gi moo tax mu ne bépp taxawaay boo xam ne taxawoon na ko bu naqare woon yàlla ci bi mu nekkee yéefar bëgg naa taxaw taxawaay bu mel noonu bu gërëm woon yàlla ci bi mu nekkee jullit na mu doon jàmbaaree ci wàllu xeex ca kéefër ga dana def njàmbaar gu raw googa ci biir lislaam te itam borom bi defal na ko tawfiq ba mu defe ko noonu gis nga kon sayi aatam yooyu yëpp xasanaatam yu mujj yi far na ko kenn toppatu ko yu jëkk yam te lim rey ci jullit bari na lool waaye bi mu duggee ci lislaam lim rey ci yéefar bari na lool ba tax na loolu mu def ci lu baax far na la leen kon loolu mooy wasila naka noonu itam ñaan gi yonente bi alayhi salaatu wax ne nañ koy ñaanal wasila boobu te mu ne ku ma ñaanal wasila xallat lahu safaa yowma alqiyaama kon ku bëgg a yeyoo rammum yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ëllëg sabab ba mooy nga koy ñaanal wasila boobu bu ñu noddee ba pare nga ñaan allahuma rabba haasi daawati taamma wa salaati alqaima aati muhammadin muhammadin alwasilata walfadila wabasu maqama mahmudan allazi waabta kon bi wax ñaan googu wasila la bu lay eggale ci nga yeeyoo rammum yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kooku wasila shar'iyya la naka noonu jokk bokk wasila la ci gudd fan ak wërsëg bu yaatu ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ne man ahabba an yubsata lahu fi risqi wa an yunsaa lahu fi athari fal yasil rahima rawahu cheykhaan buxaari yu muslim mu ne koo xam ne bëgg na yàlla yaatal wërsëgam yeexe aw fanam nay jokk mbokk gis nga kon loolu ab jubluwaay la nga bëgg gudd fan am wërsëg wasiila ba jokk mbokk dana ko joxe kon mbir yi yépp ak yu mel na ñoom ay wasaa'il lañ muy ay jëfandikukaay lañ yoo xam ne day eggale nit ki ca lam bëgg waaye nag bu dee wasaa'il yoo xam ne sharciya la faw ñu ngi koy jële ci sharia ci alquran ak sunna duñ ko jële ci gëstu rek wala essayer rek wala yëg-yëg rek ndax buñ ko seetloo mënuñu woon xam ne jokkoog bokk mën naa guddalu fan mën naa yaatal wërsëg lu dul ñu xamee ko ci biir waxi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam kenn mënu koo gëstu làmbatu ko ba xam ko bari nag dañuy jóom ci ni ñuy déggee wasaa'il yi muy njëfandikukaay yi moyen yi ñaari façon yépp yu kaw ni yi nga xam ne yu naturel la ak yi nga xam ne charia la defe ne mën na leen a eggale ca lan bëgg a egg fekk ne mënu leen faa eggale moo tax war nañoo xam lu ñuy xamee wérub jëfandikukaay bi ngay bëgg jëfandikoo ndax wér na am ndét wa masruiyatuha moyens yi jëfandikoo ndax wér nañ amma yoon wi ngay jaare nag pour mën a xam wasiila bi nga xam bu dee wasila kawniya la nga xam ne bu naturel la ñu ba xam wér na am déet mooy an nazar as salim mooy gëstu ak essai ixtibaar dem ci laboratoire yi di seet mooy gis nga euh, scientifique yi ñuy jëfandikoo yëpp ba del lii la da koy def tëb ñu tëb rek wax ko dañ koy essayé ay yooni yooni yooni yoon ba gis na daal résultat bi mu leen di jox soppi kootul ñu doog a ne kon lii mën naa def lii kon lii ku ko jëfandikoo ci nangam dana mën a nekk kon wasila kaw ne ñaari sart la am moom pour ñu jëfandikoo ko muy moyen bi nga xam ne bu naturel la bu jëkk bi mooy na dagan na dagan dagan a jëfandikoo ñaareel bi na sax ne mën naa amal liñ koy doyee ndax bu dëgërul moom sañoo ko la jëfandikoo bu fekkee dagan na waaye mënul liñ koy doyee loolu boobaa pola caaxaan la ndax jël dara di ca def loo xam ne du sotti itam lu mel tey nga ne war mbaam dagan na waaye soo ne damay war mbaam dem France da dana jafe lool ah, ndax itam bu ko dee manit dana dana dana dana son dana dana jafe lool daal waaw ndax wasila la war ko dagan moom mu baax la wasila bi mais nag ndax liñ koy reyee mën na ko nag léegi fi nga ci bëggee dem ndax man na faa dem kooku itam ñaari sart yooyu la cee wax bu dul loolu da ngay bu fekkee mënu ko moom kon def nga koy def abas lay tudd kon ñaari sart yooyu mooy daje ci wasila sariya mooy na dagan te itam nañu essayé ba gis ne lii ñu koy bëgg a defandi ko mën na ko waaw dama ne at yooyu ñu dugg nga bëgg a dem tukki bu sori mën a tiim géej yéeg yépp dañ ko essayé ba gis ne def nañ ko ay yooni yooni yooni yoon xëy na ay njuumte dana ci di am waaye yooye lu raar la la gën a nekk xaayida ba daal ba daal mooy war naa mën a rekk su ko defee kon te itam dugg ko dagan na te itam mën na laa eggale fa nga jëm kon kooku wasila boobu nga daal di koy jëfandikoo kon wasila kaw ne bu mu mën a doon ñaari sart yooyu lañ ciy sart rek da nga lijjanti ba xam lii dagan na am déet bu daganee ndax mën na lañ koy doyam déet bu ko bu ñaari yooyu dajee rek léegi moom mën nga koo jëfandikoo amma wasila sariya nag muy moyen bi nga xam ne nag moom moyen diine la. moom sartuñ ci lu may ak saxam rek na sax waaw sartuñ ci leneen essayé wuñu la mënoo ko essayé sax moom waaw ba xam ndax man na da ngay gëm ne moom li mu wax moom man na ko moom ma tax wax ba ngay seet ba xam sax naam ndéet ne ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam la jóge wala sax na ci alquran la nekk loolu rek lañ ci seet waaye wasaayil yooyu gis nga nit ñi dañ ci juum léeg-léeg ci li ma la wax ne léeg-léeg wasila bi même ko daganee it lañ koy jëfandikoo du ko man walla sax la ci gën a bari du dagan loolu dafay bari lool ci nit ñi mu jëfandikoo jumtukaay yi ndax du doy rek ci wasila sariya boobu nga ne njariñam sax na bu xasee njariñ rek kon nekk na lu ñu yoonal mënees na ko jëfandikoo déedéet xam nga bu dee ca bu kaw ni yëbëre bu naturel bi dañ ne la moom la njariñam wér am na njariñ moom tem dagat defoon ba am njariñ itam te saxut jëfandikoo ndax am njariñu dara rek tekkiwul ne loola lu ñu yoonal la lu ñu sañ a def ci diinal masalan lu mel ne jaay sàngara mën naa mën naa andil njariñ mën naa andil boroom njariñ mën na ko andil alal naka noonu carte ak xeeti carte yeeg loterie yeeg yëpp ku ci gane mën na laa andil njariñ parce que man nga rek gis naa koo xam ne am na alal joo xam ne dafa carte waaw lu mel ne bëre bii ñuy def man gis naa koo xam ne dafa amee million ci bëre bi kon daal baax na déedéet da ngay war a seet nag ba xam ci sax naa mbéet ne loolu sañees na koo defam mbéet ndax gis nga ci sàngara moom ak carte gi suñ borom ne yasalunaka anil xamri wal maysir qul fihima ismun kabir waaye wa manafiu linnas gis nga manafiu kenn du ne amul njëriñ carte kay boo gañee mu baax sàngara yi kay boo dee jaay muy jar mën ngaa bëri xaalis waaye wa ismuhuma akbaru min nafihima seen bakkaar moo gën a rëy fuuf la ca nekk ci njariñ ko si néew lépp loo xam ne nag bàkkaar ba moo ëpp nag njariñ sa ca nekk dañ koy baax ngir mucc ca bàkkaar ba waaw ngir mucc ca bàkkaar ba kon daal ki gàttal ci wasaa'il yooyu yi nga xam ne kaw ni la muy yu naturel la ak yi nga xam ne charia la kenn du ko jëfandikoo lu muy gannaaw boo xamee na dagan na foofu moom ñoom ñaar ñëpp ci dajama bu mu ci mën a doon moom dalay leer na dagan na ma bu dee bu charia bi nag la nga cay dolli mooy sax na bu dee bu kawnee bi la nga cay dolli mooy njariñam moom fes na prouvé nañ ko ne day jariñ kon pour jëfandikoo moyen bu mu mën a doon ñaar yooyu war nga ko cee dajale bu dee boo xam ne bu naturel la doy na ci ñu xam ak daganam mooy gisuñu fenn fu ñu ko tere maanaam duñ ko wëril ak texte bu koy daganal waaye buñ gisul fu ñu ko tere rek dagan mu gisoo texte bu leen nan dugg oto wala dugg leen gisoo waaye gisoo texte bu ko tere itam terewuñ ko gannaaw terewuñ ko rek te mbirum aada yu naturel yii la yii ñu jëfandikoo yëpp waxuñu ne wax leen ci micro waaye itam terewuñu ko moo tax fuqaha yi dañoo wax ne al aslu fi asiyaai al ibaaxa maanaam matières yi matériels yi ñu jëfandikoo yépp li ciy cosaan mooy lépp a dagat ndax borom bi moo ne wa saxara lakum maa fi samawaati wa maa fi l ard jamian nekk ci asamaan ak tàggatal naa leen am na nag ay exception yi ñu ca génn nag araamal yooyu nag texte mooy ñëw tere ko ne mboolem lii ba mu lii bu dee wasail charia nag moom du doy ci nga jëfandikoo ko nga ne kenn terewu li may def ci diine te loolu ñu bare bare bare la lañ sànkoo yi ñuy fent ci diine di ko def soo leen waxee ñu ne kenn terewu ko te fekk na ci diine nag du loolu kenn terewu ko rek doyul da nga war a am ñu digal la ko il am nas shar'i moo tax cheikhul islam ibnu taymiya rahimahullah di wax ne al aslu fil ibadat al manu al aslu fi l ibadat al manu illa li nassin wa fi l aadat al ibaha illa li nassin nee na liy cosaan ci jaamu yàlla dañoo tëral lépp ba ba ngay am texte bu la ko digal lépp lu dul jaamu yàlla rek boo amagul texte bu koy digal dañ la ko tere loo xam ne xalaat dañu jàpp ne wasiila la lu war a mën a maye tuyaaba ya lu mën a maye ngërëmul yàlla la julli yeeg koor yeeg yooyu yëpp dañ laa tere yëpp ba ba am ndigalul def ko la nga ca am ndigal dong nga sañ a def la ci def lépp loo ci amul ndigal tere nañ la ko gis moom su foofu su fi nit ñi taxawoon rek buñ dugg ci biddaa su fi nit ñi taxawoon rek buñ dugg ci biddaa waaye nag dañ ko ubbi ñoom jàpp nañ ne loo gisul lu la koy tere rek sañ nga ko def fekk nag du loolu bu dee ci aadaat yi nag muy yi ñuy jëfandikoo yu naturel yi jumtukaay yeeg yooyu moom lépp lañ la may nga jëfandikoo ko lu may loo xam ne nag ganaaw ba génn nañ ko ca tere la kon ñaar yi dañoo bokkul al aadaat bokkul ak al ibaadaat aada ak ibaada bokkul aada moom da ngay dem bañ na la taxawal ibaada nag da ngay taxaw bañ na la doxal ñaar yooyu bokkul di dem rek bañ la taxawal ee eh, taxawal foofu moom bu fi egg ak nga taxaw rek bañ la doxal jaaral lii jaamu yàlla da taxaw bu buusat meetar bu bañ lay wax jaaral nii nga jaar ko waaw ba ba làmbatu bul def dara dama bëgg a jaamu yàlla tàmm déet taxaw loolu tekk rek ndax foo foo teg sa tànk doo ko fa teg rek danse la waaw xam ne rek wenn yoon rek moo a jaar teg rek day soof kooku da ngay ba ci xam yoon wi ne la tegee sa tànk nii tege ko nii nga tege ko noonu waaye boo làmbatoo naan ma yor sama tànk rek bootul nga yoor ko rek weñ waaw desu bu dee aadaat yi nag moom dem rek yoon yëpp a ubbi ko soo jëmee foo xam ne dansé la ko fa ñëw la taxawal foofu bu feeg nga doog a taxaw tawassul kon bi nga xam ne moom tax a jóg mooy ak tawassul shar'i mooy tawassul ci sharia al masro dafa am nag masro ak xayru masro tawassul bi ñu def ci diine muy bu ñuy jottalikoo ngir egg ca lanu bëgg ci diine da am bu ñu yoonal bu mën a nekk ak boo xam ne nag mënul nekk du yoon bu ñu fent la bu ñu ŋàññ la ak tawassulul masro muy bi nga xam ne nag yoonal nañ ko gannaaw boroom xam-xam yi gëstoo ci alquran ak sunna yonente bi sallallahu alayhi wasallam gis nañ ne ñett la li nga mën a tawasule man koo jaare pour am sa ngërëmul borom mën a am dugg aljanna mën a mucc ci safara loolu ñett la yoo xam ne rot yenn yi rot na ci alquran yi ci des yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jëfandikoo ne ko soññe na ci waaye ci biir ñett yooyu nag amu ci tawassul boo xam ne dafay jëm ci jëmm nga ci jëmmi boppam wala jëmmi dara loola ka la ñuy tawassul amu ci amu ci boo xam day ci daraja nga ne darajay nit ci wala day jëm ci aqam bi xaqi fulaan wala day jëm ci maqaamaam maqaamaam wàccuwaay bu réy bi am ci yàlla nga ne ca laay jaare déedéet yooyu ñetti tawassul yi sare ay yoonal yépp benn bu ci dugal yooyu bokkut lool mooy tegtal rek kon ne tawassul boo xam ne nit ki foofu la koy jaaree ci jëmmi nit jëmmi nit kii lay wax ne man ci moom laay jaar pour am li ma bëgg wala ci darajaam xëy na bu gisatul nit ka mu ne darajaam wala maqaamaam walla xaqam boobu tawasul xayru masroo nekkul bu ñu yoonal ndax duggul ci wasiila bi ñëw ci ñaari aaya yooyu benn bu ciy firi loolu ñetti xeeti tawassul yi am bi ci mooy at tawassul ila taala bismin min asmaihi alxusna aw sifatin min sifatihi alulia mooy nga tawassul nga jokku jëm ci suñu boroom tabaraka wa taala aw turam ci turam yu rafet yi wala ci aw meloom ci meloom yu kawe yi bi jullit bi di wax ci ak ñaanam allahuma inni as'aluka bi annaka anta arrahmanu rahim al latiful xabir an tuaafii gis nga kon tawasul na ci arrahmanu rahim borom mu ne walillahi al asmaau al xusna fadoohu biha loolu lu leer la loolu lu buñ ci yemoon buñ duñ jàdd feneen walillahi al asmaau al xusna fadoohu biha bi ma la ki la jox numéro yéen li mooy sama numéro dema ci woo ah wala looy lamb di wut beneen beneen numéro di ko ci woo yàlla joxe na numéro am walillahi al asmaul xusna fad'uuhu biha parce que dafa leer yàlla am na turam yu rafet dee leen ko ci woo ngok moo tax kon kooku de yàlla maa ngi lay ñaan ci nekk gi nga nekk arrahmanu rahim al latifu lxabir maa ngi ñaan nga may ma jàmm wala mu ne asaluka bi rahmatika allati wasiat kulla shay an tarxamani wa li gën a nekk munaasaba sax looy ñaan lu nga jaaree a ca tur wa dëppoog loolu mel nga ne yaa razaqu yaa latifu ultuf bi yaa raximu irham nii kon liy tegtal yoonal bu ñu war a jaare ci turi yàlla yi di ko ci ñaan mooy aaya boobu walillahi al asmaul husna fad'uhu biha suratul araf aaya téeméer ak juróom-ñett fukk maanaam mi mooy ñaan leen yàlla jokkoo ci turam yu rafet yi maanaam jottali ko ci turam yu rafet yi sooy ñaan yàlla itam na ñaan gi day am lu koy jottali moo tax mu ne fal yastajibu lii gis nga nañ nañ nañ def lu ma leen wuyoo nañ jaar fu ma leen wuyoo xam nga yàlla moom lu may wax rek mën na laa wuy waaye dafa am moyen yooyu jaar mu doog laa mën a wuy mu mu doog laa wuy wa isa saalaka ibadi anni fa inni qarib ujibu daawata daai isa daani waaye nag fal yastajibu lii wal yuminu bii mooy dañu ko jaare ci turam yooyu daal di joxe nag turam yooyu ne walillahi al asmaul xusna fad'uhu biha moo tax gis nga Suleymaan alayhi salaam ba muy ñaan daf ne wa adxilnii bi rahmatika bi rahmatika fi ibadika salihin gis nga yàlla yàlla nga ma dugal ci sa yërmande newul ci suñu kenn tuddul kenn de bi rahmatika fi ibadika salihin borom bi nee na qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi daalika falyafrahu huwa xayrun mimma yajmaun looy ñaan ñaan ko ci fadlullahi wa rahmati yërmandeem ak mbaaxam moo tax mu ne qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi dalika fal yafraxu koy kontaan kontaanal ci yooyu gis nga moo tax Suleymaan mi ab yonent waa wa adxilnii bi rahmatika fi ibadika saalihin yàlla yàlla nga ma dugal ci sa yërmande laa jaar ci laa a tawassul na nga ma dugal ci sa jaam yu baax gis sa nooyaay ci yërmande yàlla defal ci yërmande yàlla moo tax nga mën a nooy mën a dékku ñëpp bokk na ci ay tegtalam yonente bi alayhi salatu wasalaam bokk na ci ay ñaanam buy julli balaa sëlmal mu ne allahumma bi ilmika al gayb wa qudratika ala al xalq axyinii maa alimta alxayaata xayran li wa tawaffanii ida kaanat alwafaatu xayran li rawahu nasai walxaakim wa saxaxa yonente bi alei salatu salaam daf daan wax ne allahuma bi ilmika al gayb maanaam ci sifatul ilm melokaanu xam-xam bi nekk suñu borom wa qudratika ak melokaanu kattan bi nekk ci moom mu ne maa ngi lay ñaan ax yi nii nanga ma dundal li feeg dund bi moo gën ci man waaye nanga ma fi jëlee faat ma su fekkee faatoo gën ci man wa tawaffani idha kanat al wafa xayran bi moo tax kuy ñaan rek naan yàlla daf yàgg rek te mën naam yàgg bi gënatul ci yow dema gën ci yow ah moo tax ngay ñaan ñaan gu matale ndax itam dund bi baax na waaye nag bu fekkente ne da nga ciy nekk ci lu baax mais su fekkee egg na ci phase boo xam ne moom loo fi gën a yàgg da ngay dolli koy bakkar loolu moom jóge fi moo gën mu daan ñaan gi ahyini maa alimta al xayaata xayran bi li bi mi ngi doon aw yiw ci man moo gën ci man yàlla na nga ma fi bàyyi waaye nag wa tawaffani ida kaanat al wafaatu xayran bi su fekkee faatu gën ci man yonente bi alayhi salatu wasalaam dégg na benn waay muy ñaan allahuma inni la asaluka ya allah alwaxid al ahad alsamad alladi lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad an taxfira li dunubi innaka anta algafuru rahim fa qaala sallallahu alayhi wa sallam qad xufira lahu wa qad xufira lahu dafa dégg benn waay buy ñaan allahuma inni la asaluka ya allah alwaxidul ahad gis nga mi ngi tudd melokaanam yi assamat allazi lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufan ahad maa ngi lay ñaan an taxfira li zunubi nga jéggal ma samay bakkaar innaka antal xafur rahim yonente bi sallallahu alayhi wasallam ne jéggal nañ ko jéggal nañ ko ba mu déggee loolu ne kooku ne jéggal nañ ko moom gis nga xat xufira lahu xat xufira lahu gis nga fi mu tawassule yonente baa ngi toog de wala ñëwul sax bi nepp yi ka de waaw ñëw ko bi nepp yi ka de nga xoola kon ñooñu moom ni ñu déggee woon yonente baa ngi toog waaye gis mu ne yaa allah al waahid yàlla ci boppam la mbàkk ci ay melokaanam bokk na ci wax yonente bi sallallahu alayhi wasallam ji mu wax ne koo xam ne ak jaaxaleem dafa bari comme ni mel ci jamono ji fi ne rek jaaxale yéeg yitte yi bari lool moo tax ñaan gi war nañ koy bàyyi xel bu baax allahuma inni abduka wabnu abdika wabnu amatika naasiyati biyadika maadin fiya xukmuk aduwun fiya qadauk asaluka gis nga asaluka bi kulli ismin huwa lak sammayta bihi nafsak aw allamtahu ahadan min xalqik aw anzaltahu fi kitaabik aw istatarta bihi fi ilmi alxaybi indak an taj'ala alquran rabia qalbi wa nuura sadri wa jalaa xuzni wa dahaba hammi mu ne illa adhaba allahu hammahu wa xusnahu wa abdalahu makaanahu faraja ne képp ku am ay jaaxle am ay yitte am ay mbir yu ko jaaxal lool nee na mu ñaan-ñaan ji nee na lu dul ne yàlla dana dindi njàqare la bind jaaxle ga wuutalal ko ko ak xel mu dal wuutalal ko ko ay yitte yu faju ñaan gi mooy yàlla man dey sab jaam laa doomi sab jaam laa sa jaam bu góor doomi sa jaam bu jigéen laa itam naasiyati bi yadika maanaam sama jubbu mi ngi ci sa loxo maanaam yaa may wommat lépp lu àtte ci man mu wéy waaye loo àtte ci man itam nag lu maandu la mbaa ngi lay ñaan nag ci wépp tur woo am digga loolu lu rëy la bi kulli ismin huwa lak tur woo xam ne yaa ko tudde sa bopp wala nga xamal ko kenn ci sa bindeef yi wala tur woo nga wàcce ko ci sa téere bi wala sax muy tur woo xam ne yaa ko denc kenn xamu ko fi ilmil xayb indak tur woo xam ne xamuloo ko kenn parce yàlla am na turam yoo xam ne yonente yi xamuñu ko aw istasarta bihi fi ilmil xaybi indak maa ngi lay ñaan nag ci tur yooyu yëpp nga def alquranul karim rabbi aqal bii muy sama mbégtem xol muy naatal sama xol nekk sama leeru dënn nekk li nga xam ne mooy dindi sama njàqare mooy dindi sama jaaxle ñaan gi mu ngi ci xesnul muslim ku ko mukkalul woon na ko jéem a jàngit ko ñaane ñaan gu rëy la ci dind ay jaaxleeg faj ay àddu addis yu mel nii kon ak yeneen yu mel ne moom mooy dalil mooy tegtale ci yoonal bu yoonal nit ki di tawassul ci turi suñu borom yi wa taala ak melokaanam bi ndax yonente bi sallallahu alayhi wasallam jëfandikoo ne ko te suñ borom moo ne ñu wa ma ataakum rasul faqudu mooy at tawassul ila taala bi amalin saalihin qaama bihi daa'i jokkoo ci suñu borom tabaraka wa taala jottali ko jëf ju baax joo xam ne yaa ko jëf waxuñu ju keneen jëf de jëf joo jëf yow ci sa bopp nga jottali ko lu mel ne allahuma bi imaani bika wa mahabbati laka wa ittibaai li rasulika ixfir li waaw yàlla gëm gi ma la gëm xam nga gëm gi jëf la yaa ko gëm ak sopp gi ma la sopp ak topp gi ma topp sa yonent ci kaw loolu maa ngi ñaan nga jéggal ma loolu des na ci tawassul waaye nag na fekk nag mu dëggu na fekk nga gëm dëgg na fekk nga topp boobu nga ne da nga koo topp yonente bi di dëgg ah, na fekk mu dëgër nag mu dëgër waaye bu dee iman goo xam ne bokkaale nga ca biir topp yonente bi goo xam ne ay biddaa nga ca biir googa du la jàllale fenn googu yàlla dëngu wala nga allahuma inni asaluka bi xubbi li muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa imani bihi an tufarrija anni yàlla maa ngi lay ñaan ci sama sopp muhammad sallallahu alayhi wa alihi sama gëm nga wuññul ma samay njàqare ak samay tiis naka noonu itam mu tudd jëf joo xam ne jëf lu baax la jum jëfoon joo xam ne ragal yàllaa tax mu jëf ko joo xam ne itam jiital ngërëmul yàlla ci ngërëmul boppam loolaa tax mu jëf-jëf jooja am na yeneen yu teewoon yoo xam ne mënoon naa tànn yooya waaye mu tànn ngërëmul yàlla ñàkk yooya jëf jooja mën na caa di tawassul tudd ko loolu tawassul la boo xam ne bu ñu gërëm la ak yoodalam ñëw na ci alquranul karim lu bari ñaan yu bari yi alquran di andi rabbana innana amanna doog ne faxfir lana zunubana gis nga yàlla ñun day gëm nan gis nga kon ñu ngi tawasul ci suñ gëm kon rabbana innana amanna kon nag faxfir lana zunubana wa qina azaban nar ci suñ iman lañ tawassul foofu sa iman nga tawassul rabbana amanna bima ansalta wattabana rasula kon nag faktubna ma shahidin yàlla nun day gëm nañu alxuraan ji nga wàcce te topp nañu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam kon nag na nga nu bind boole nu ci ñi nga xam ne dañoo seede dëggug yonente bi sallallahu alayhi wa sallam gis nga beneen rabbana innana samina munaadiyan yunaadi lil imaani an aminu bi rabbikum fa amanna rabbana faxfir lana zunubana wa kaffir anna sayiatina wa tawaffana ma al abrar yàlla nun day dégg nañ ab wootekat buy woote naan gëm leen yàlla munaadiyan yunaadi lil imaani an aminu bi rabbikum ba mu ko déggee day nun fa aman naa gannaaw gëm nañ nag rabbana faxfir lana zunubana gis nga balaa ñaan gee ñëw day jiital wax li nga def fa aman naa danoo gëm gannaaw danoo gëm nag suñ gëm googu nag yàlla noo ngi lay ñaan nga jéggal ma suñuy bàkkaar mu dellu wax ne innahu kaana fariqun min ibadi yaquluuna rabbana amanna faxfir lana zunubana warhamna wa anta xayru rahimin gis nga yooyu yëpp ay ñaan la yu ñëw ci alxuraan yoo xam ne da ngay njëkk a tudd li nga jëf ci gëm yàlla wala topp yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam doog a ñaan nag ak njëggal naka noonu bokk na ci liy tegtale itam masruiyatu maanaam tawassul boobu ci sa jëf ju baax yoonal buñ ko yoonal li nga xam ne moom la xissatu ashaabil gaar ëmb muy xissa boobu yonente bi sallallahu alayhi wasallam di nettali ñett ñi doon dox ci ab àll ba mu guddi ñu daal di fatu ci am xunti xunti mooy ab xar-xar bu nekk ci doj yaatu ba nit xacca comme xaaru ayra bi yonente bi sallallahu alayhi wasallam doon dugg ak xaaru suur ba ñu ca duggee doj wa nga xam ne mooy ëpp buntu xuntima dal di aw doj dal di wàcc dal di fermi buntu xuntima ci ñoom xam ne doj la woo xam ne moom mënuñu ko raadal te ñoom ñett lañ ba ñu xalaatee xalaat ñu jaaxle xam ne amul benn wasila kaw nii moom maanaam benn moyen naturel bu mën a jëfandikoo fi mu ne ba génn moom amul parce que moyen mooy ngeen puusoon ko wala am lu ñëw lorkal leen ko wala ngeen mën a téléphoné ñu jëm si leen loolu lépp amul léegi daal ñu toog fi ñu moo tax itam bu gëm yàlla li tax mu baax bu wasaa'il kawniya yi jeexee wasaa'il sharciya yi ñu ngi fi waaw moo tax jullit moom ay moyen bu jeex bu moyen moyen matériel yi bu ñu jeexee moyen sharia yi ñu ngi fi moom waaw bu dee ñi xam ne nag ñoom gëmuñu yàlla ñoom bu moyen matériel yi jeexee rek ñu ne sayet daal di xaru wala ñu def leneen gis nga sax mbir yi sabab yi bu xatee ci àdduna seeni liggéey yàqu ñu dàq leen ñu jëm jëm doxul rek ñu daal dañ sayee jeex waaw bay boo nga jële fi sa bopp gis nga nga gis lislaam boo ko gëmee ni muy yaatale sa xol ni mu yaatale sa dund ni mu yaatale sa dund ba tax borom bi naan afa man saraxa allahu sadrahu lil islam lislaam ku ci ne yàlla dafa ubbi sa dënn doo jàpp mukk ni mbir yu jeex ndax kàttanu suñu borom tabaraka wa taala moom ngay bàyyi xel moo tax ñoom ñu daal de ah kon nag mooy nañu ñaan yàlla te kenn ku nekk def tawassul ci jëf ju baax joo defoon kenn ki def tawassul bi birri waalidayhi mbaax gum defoon ci ay wayjuram ne man day damaa amoon ay wayjur yu màggat yoo xam ne bu ma masaa sàmm ñëw bu ma rattee bala maa jox samay doom ak sama soxna samay ñaari wayjur dañuy naan ba man ci meew mi ma doog a jox samay njaboot benn bés ma guddee ñëw fekk samay wayjur nelaw te itam bëggumaa njëkk a jox samay doom ak sama soxna meew mi samay way ju ñoo njëkk war a naan ba pare te itam bëgguma leen a yee mu taxaw tiim leen ak gambu bi rek ba fajar jot doom yi jooy ci tànk mag yéppam rek mu taxaw rek mu ne yàlla nag bu fekkee jëf joojee dama ko def ngir sàkku sa dërëm rek yàlla nga mu génn fii doj bi daal di puus tuuti doj bi diis topp waaye nag ba tey doyagut keneen ki moom def tawassul ci al ataaf maanaam fegu mbirum jigéen ne man day amoon naa sama doomi baay joo xam ne moom la gënoon a bëgg ci kaw suuf nee na mu ngoro ko ngoro mënu caa jot ba mu jàpp ne dana ko ñàkk waaye nee na jamono ju jafe-jafe-jafe ñëw ndaw soosu tumuranke lool jaaxle lool ñëw di sàkku ci moom ndimbal ba mu ko waxee ndimbal la ba pare mu ne ko waaw mën naa laa dimbali de waaye nag li ma daan bëgg ci yow daal bu ma ko mënee am ci yow ba noppi doog laa dimbali ba ñu demee ba wéet ndaw si ne ko teegaa ragal yàlla mu daal di gindiku daal di tiit daal jël alal jam doon sàkk wala lu ko ëpp sax jox ko daal koy bàyyi mu dem daal ne yàlla su fekkee def naa loola ngir ragal la ak sàkku sa tuyaaba yàlla mënu génn fii doj bi daal di topp tuuti ki ci def def tawassul ci wattandiku àqi doomu aadama ne man de dafa am waaju ma doon liggéeyloo am lu ma ko doon liggéeyal bi ma ko daataan fay mu dem ma jël la ko waroon a faye di ko ko jëndal ko ci ay xaraki bëy ba yàgg jëndal ko ci nag ba yàgg ma jëndal ko ci gëléem yépp di yokk rek ma di ko ko sàmmal waa de toog ay at doog faa jaarat ne ko yow de ak sàngam doon nga ma liggéeyloo fi dara waaye damaa yàkkamti woon ba dem ba jëluma fay gi jox ma sama fay nee na mu génn ak moom ci àll bi ci ginnaaw kër bi nag gis nga coggalu xar yi yëpp ak nag yëg gëlim yëg yëpp yaa moom waa ji da nga da nga may ñaawal rek yéen borom alal yi da ngeen di ñaawalaate man jox ma sax ma dem mu ne ko wallaahi yaa ko moom waa ja daal di daq yëpp dem wan ko gannaaw di dem ba seen a mu ne yàlla bu fekkee def naa loola ngir sa jëmm yàlla mu génn fi doj yi daal di topp ñoom ñëpp ñu génn yonente bi sallallahu alayhi wasallam ko nettali kon li muy tekki mooy ñooñu ci amalu saalix gis nga jëf bu baax yoo xam ne ju dëggu la seen diggante ak seen borom parce que nag loolu loolu itam nag lu lu garaaw la ndax yàlla moom fekkee loolu da nga ko defoon yàlla kenn mënu ko utiliser day wóor ne xam na ko moom waaye soo ko bëggee tegal ne yeneen i mbir intérêt taxoon nga def ko dinaan ko yàlla tey yaa taxoon de <laughs> du de moo tax la ne wóor de waaw la ngay teg ne wóor de mu koy def moom bëgg nit ñi naw laag ñu moo am daraja moo am moo baax yooye nga ca tegoon jaaxle nag bëgg koo utiliser waat beneen utilisation bu bokkut déedéet utiliser mbir mi moom benn yoon nga koy mën a utiliser bu fekkee li nga jëfandoo en tant que daraja nga ci wutoon nit ñi tagg na la am nga ci daraja jeex na yàlla moom pare na ci diggu la ci gën na pay kon noonu dañoo def tawassul ci jëf yoo xam ne ju baax joo xam ne defoon nañ ko fi aw xaati raxaa xam nga yonente bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne taarraf ila allahi fi raxaa yaarifka fi sidda jéem a fàttaliku yàlla xam yàlla bi nga ko talee ba ci jàmm dara xew nga bàyyi xel yàlla tal bis boo nekkee ci tartar suñu borom tabaraka wa taala dimbali la foofu moo tax suñu borom a ngi nettali ci alquran ñaar ñu dem ba ñëpp soxla ah, ba mu dugg ci biir jën wa jën wi wan na ko xam nga moom it moyen matériel yi moom jeex na waaw moyen matériel moo amatu nekk ci biiru jën fii sulumatin salaas ñetti lëndëm lëndëmu géej gi lëndëmu biiru jën wi lëndëmu guddi gi ñetti lëndëm yépp ñu ngi ci biiram teewul mu ñaan la laa illa anta subhanak inni kuntu min azalimin borom mi ne falaw laa annahu kaana kaana la wax ne min al musabbihin waxul fii tey de waaye nee na bu njëkkoon bi mu daa daan dugg fii daf ma daan sàbbal waaw bu fekkoon ne fii doomu la ma doog a sàbbale du ma ko wuyu waaye kaana min al musabbihin la labisa fi batnihi ila yawmi yubasun ba mu nekkul ci biiru jëm tal daf ma daan woo moo tax bi mu jaaxlee woo ma it ma wuyu ko kon nag boo liggéey ba jaaxle doog a woo yàlla bee ko talee ne ci sa yaataay yimbe ci sa kër faale woo yàlla bis boo amee problème it boo ko wooyee du la gis nga kaana la wax kaana nekkoon na kaana nekkoon na minal musabbihin bokkoon ca ñama daan sabbal nee na bu ña bokkul woon fii laa koy bàyyi ci jëm ci lay dekkee mooy bàmmeelam xoola ka ca des daaw na ma nga xam ne moom moom yàlla ba mu demee ba ndox ma wër ko muy lab mu ne laa ilaha illa alladi amanat bihi banu israil wa ana min al muslimin wa ana min al muslimin borom bi nag al aana wa qad asayta qabla wa kunta min al mufsidin ah xanaa tey nga bokk ci jullit ba nga nekkee ca sagu góor ga yëmmoo ca sax naan ana rabbukumul aala maa alimtu lakum min ilahin xayri ah man maay seen borom di gën a kawe xaw ma sax beneen buur bu dul man tey nag nga jaaxle ci mel wa ana minal muslimin man ci jullit ñi laa bokk jullit ñi noonu lañ jàq rek man ci jullit ñi laa bokk waaw bu ñu bari ci loolu la ñu def bu ñu tiitee rek dañu jël seen course wuti wuti jàkkee rek waaw <laughs> loolu loolu du sotti du yaa nga ca baar ya yaa nga ca taxawal am problème ñu nar la tëj nag fu ne gëm jëm fa nag naan nañ ma ñaanal buñ la ñaanal du sotti yàlla da nga ko doon ba nga koy tal nga koy bàyyi xel gis nga ñii kon lii bañ koy def kee ba muy topp way juróom yi loolu ci jàmm la nekk bu naanoon meewam itam tegal leen fa seen wàlle kenn du ko ci wax dara kee itam bu defoon moyen ci jamono boobu it dal ne yaa rasulallah halakal maal wa jaa al ayaal wanqataat subul fadu lana lana rabbana an yasqiyana fadu llaha lana an yasqiyana daal ne ko yow yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam alal yëpp yàqu na njaboot gi xiif na suñu mooyee yëpp dagg na amatuñu benn pexe ñaanal nu yàlla mu nàndal nu mu taw mu ne farafa yadayhi yad'u mu ne yonent bi saa sallam daal di yëkkati ay loxoom foofu mu taxaw ci kaw minbar bi mu ne hatta ra'aytu bayaada ibti nee na ba ma gis weexi weexi poqutaanam ba mu yëkkatee loxo yi nii nee na maa gisee weexi weexi poqutaan mu ne allahuma agisna allahuma agisna allahuma agisna yàlla xettali nu yàlla xettali nu mu ne nit ñu yëkkati seeni loxo di ñaa ànd ak moom mu ne fa wallazi nafsi bi yadi maa wadaaha hatta taara saxaab amsaal al jibal mu ne wàccewul loxo yi lu may nee na seen nañ dajaloo dajaloo bu gaaw ba mel na ay montagne ci mu ne summa yansil an min barihi lam yansil an min barihi atta raaytul matara yataxaadaru ala lixiyatihi xam ngeen ne booba jàkka ji day day senn jàkka ji booba bu tawee day day senn nee na bi yonente bi bi nee na maa ngi gis ndox mi di rogaat ci sikkim bi maanaam tàmbali naa taw yonente bi salaa sallam tàmbali ba sikkim bi sax nee na ndox maa ngi ci ndox maa ngi ci wàcc hatta raaytul matar yataxaadaru ala lixiyatihi sallallahu alayhi wa sallam loolu kon dalil la kooku gis nga jokkuwul ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci jëmm ji mais ci ñaanam ji ne ko nga ñaanal lu ci ñaanuk yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci la def tawassu parce que ñoom arab yi dañoo déggoon loxa bi baax xamoon ne baatu wasila li muy tekki wasila li muy tekki mooy kooku day am lu mu def day am lu mu def boo tawassulee moom ci ñaanam ngay tawassule waaye du caagee ni ci jëmmam ci boppam kon ñetti xeeti tawassul yooyu muy jokk ci turi yàlla yi ak melokaanam yi ñaan ci wala nga tawassul ci sa jëf ju baax ñaan ci wala ci ñaanu nit ku baax ku yaakaar ak mbaaxam mu ñaan loolu nag sart ba mooy day nekk kuy dund ndax ku dul yëpp mënu ko day nekk ku teew koo xam ne mi ngi fi xëy na comme téléphone am na léegi moom xëy na mën ngaa jokkoo moom ci téléphone waaw ndax téléphone ba tey koo jokkoo rek teew na fi mu ne boo boo ko rek fi a ngi nekk communication moo ko teew sa kanam ñooy am moo tax ñaari sàrt yooyu ñu ci sàrt xayyan xaabiran na doo ko mën a def ci koo xam ne dafa faatu wala ko xam ne nekku fi te mu amul boo jokkoo ak moom am naa nag lu génn ñetti xeet yii nag moom nekkul lu ñu yoonal ndax benn dalil dikku ci te li ëpp ci boroom xam-xam yi boroom xam-xam yépp sax lu dul riwaaya benn riwaaya bu ñuy nettali ci imaam Ahmad imaam Ahmad am na riwaaya bu ñuy nettali ci moom mu ne moom ma des naa tawasul ci jëmmi yonente bi sallallahu alayhi bu bu saaz la am na yeneen riwaaye ci moom nag yoo xam ne yu waxul loolu la waaye am na riwaaye bu wax loolu waaye boo demee ci Maalik ak imaam Shafii Abu Xanifa ak ak imma yu mag yépp moom ñoom ñépp li ñu wax mooy tawassul ci amalu saalix lay doon wala ci asmaullahi alxusna wala ci duaa rajul saalix waaye du doon ci jëmm du doon ci jëmm ju ci bopp kon nag wax ji ànd ak dalil moom joote rek ca la jullit ñi topp ñaan yi nga xam ne dikk na ci alquran bari lool yoo xam ne gis ñu ci benn yoon boo xam ne day digle tawassul bil jaah maanaam ci darajay diw te yonente bi sallallahu alayhi wa ku ne xam ne ne am na daraja ju rëy fa suñu borom tabaraka wa taala waaye suñu borom waxul fenn ne buñ may ñaani dinañ naan bi jaahi nabiyika wala bi darajati nabiyika amul benn aaya wala benn ñaanin bu rote noonu kon nag loolu moo lay tekki tey loolu woowu ñaan yi nekkul masro amaa nag bunt boobu am na ay subuhaat muy ay lënt-lënt yoo xam ne ñi ci àndul jàpp ne ñoom warees naa mën a tawassul ci ay jëmm warees na cee mën a jokku wala ci ay daraja bu fekkee jëmm ji nekkatu ba nga wax ci darajaam nga wax ci àq ji am ci yàlla nga wax ci maqaamam ñi gëm yooyu am na lënt yu ñuy indi di ca jéem a sukkandiku lënt bu njëkk bi mooy xadisu istisqaa'i Omar bil Abbas Omar baaw naan bi mu defoon maanaam ñaan am ndox ci Abbas Anas ba tey moo nekk li ne am na Omar ibn Xataab radiyallahu anhu kaana isaa axatu istasqaa bil Abbas ibn Abdul Muttalib fa qaala allahumma inna kunna natawassalu ilayka bi nabiyina fa tasqiina wa inna natawassalu ilayka bi ammi nabiyina fasqina qaala fa yasqur rawaaxul buxaari waaye hadis bi ku yàlla la doon sam xel nga amul dégg rek sax da nga gën a dégg ne tawassul boobu bu mënoon a am ci jëmm kon du ñu aajoo abbas bu mënoon a am ci daraja wala maggaay wala yooyu loolu yonente bi sallallahu alayhi wasallam buy bu fi nekkee di dund ak bu fi nekkatul ba tey daraja jëm amoon ci yàlla ak maggaay bi mu amoon lépp mi ngi ci ba tey Omar dafa wax ne Anas dafa wax ne Omar bu Xataab nekkoon na saa yu ñu masaa bekkoor nee na mu sàkku ci Abbas mu ñaan mu ne yàlla nun day dañu daan def tawassul ci sa yonent maanaam ci sa ñaanug yonent nga dinu nandalal tey nag ñu ngi def tawassul ci amu nabiyika muy sa baay taxu yonent ñi nga xam ne nag ñoo bëgg saxal loolu ñoom dañ cee dégg ne kon Omar dafa tawasul ci darajay Abbas ak wàccuwaayam bi mu am fa yàlla ci loolu la tawasul maanaam jàpp ne moom li mu tawasul ak mu jaram tudd Abbas rek bi mu ne inna kunna natawassalu bi ammi nabiyina turu jum tudd turu Abbas rek ñu ne loolu la jottali ko moom pour yàlla taw fekk nag mbir mi demeewul noonu ndax Abbas biñ ko Omar waxee loolu dafa ñaan dafa ñëw taxaw ñaan ñoom nag ñu ne Omar ci Abbas la defee tawassul te saxaaba yi ànd nañ ceeg moom ñu ne kon loolu day tekki ne kon manees naa tawassul man daa jaare ci baa maggaayu nit ak darajaam ji mu am ci yàlla nga ñaan ci darajay kooku ñu ne waaw lu tax Omar bu dee darajay Abbas la lu tax mu fi darajay yonente bi sallallahu di dem ci darajay Abbas ñu ne loolu li bayaani jawaasi tawassul bil maqbul maa wujudil fadil ñu ne loolu da doon wane ne dagan nga def ci tawassul ci koo xam ne am na ku nga donte kii mi ngi baax na waaye am na ku ko gën comme ni nga xamee ne rek nit mën naa jiite koo xam ne kooku ko ëpp nga dem foofu waaw mën naa jiite sa sa sëriñ sax sëriñ bi la jàngal xam-xam jàngal la lépp nga li dajee ci moom ci ay ngëneel moom nekku ci yow la ngeen ngëneel yàlla nag a ko xam waaye ki nga xam dafa mokkal alquran xam hadis xam lu bari ci diine jub di ko jëfe yow ngay nekk ndonga lay jàngal ci moom kooku moo la ëpp ngëneel li dajee ci moom dajee gul ci yow te teewul nga ko jiite ñu ne nag ñoom foofu lañ xiyaas loolu ñu ne xam nañ ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo gën waaye dagan na nga tawassul ci euh, bil mafdul maanaam ku ñu gën ne fi mu ne Omar da doon wane loolu dagan na da ko doon jàngale looloo tax moom moom mu mu mu def loolu luñ abbas ñooñu buñ leen dee tontu li leen borom xam-xam yi tontoo ba ci njëkk dañ leen bokk na ci régal yi ñu xam ci sharia texte sariya yi boo ko dee firi doo ber benn rek firi ko boo demee ci benn bunt texte yi tey wax yépp da nga leen di dajale ci ngay mën a déggee masala ba ci boppam kon ñoom hadis bi rek duñu ko jël ci tawassul yeneen hadis yi tey wax ak aaya wax yépp lañu war a boole dendale ko ba xam ba xam ci tawassul ci turi suñu borom tabaraka wa ak tawassul ci jëf ju baax ak tawasul ci ñaanu baax moo gën a lëng wala tawasul ci jëmm boobaa dañ bu ñu boolee yépp segg ko danañ gis ne tawasul ci turi suñu borom yi tabaraka wa taala mooy li nga xam ne moo sax bokk na ci itam li ñu leen di tontoo mooy ñoom ak ñi ñu wuuteel yépp d'accord nañ ci ne bu mu ne wa inna natawassalu ilayka bi ammi nabiyina ñëpp d'accord ci ne am na lu ñu xasaf foofu bana am na ci wax ju mu dikkut loo xam ne il faut ñu nattale ko ci naxu day am lu ñuy xasaf di ko taqdir man a kunna natawassalu ilayka bu dee pour ñoom bi jaahi nabiyina waaw ñoom peut-être ñoom loolu lañ ci taqdir ñoom waaye bu dee ñu ajutali moom nag inna natawassalu ilayka bi duaai nabiyina wa inna natawassalu ilayka bi duaai ammi nabiyina ci ñi nga xam ne moom ñoo ay jumhur jumhurul ulama jumhur ahli sunna wal jamaa il faut ñu nattale dara pour xam nag ñaari nattale yooyu ban moo ci wér ndax dañuy nattale bi jaahi wala ndax dañuy nattale bi duaai dañuy dellu ci alquran ak sunna ngir mu leeralal lu yoon woowu li ñu delloo mooy ndax gis nañ fenn ne saxaaba yi ndax bu fekkente ne jeex bi dara daraja ji la daanaka jërul moo nit ki nit ki bu téewul ci daraja ma ngi dox waaw ci yàlla jërul muy jëre bu fekkante ne daraja la jël jërul abbas yonent bi abbas omar bi woo abbas kon day toog rek jàkka ji doon di abbas tukki ne sax ñëw fi rek mu ne yàlla ci darajay abbas waaw ndax xam nañ fenn ci saaba yi daa dañ def suñu bekkooree ñu daal di góof ci seen biir kër wala ñu dajaroo fi barab daal ne allahuma bi nabiyika muhammad wa xurmatihi indak wa makaanatihi ladayk isqina al qays ndax saxaaba yi daa leen def lu mel noonu déedéet kenn nit lu amul fenn saxaaba yi daa leen def bu dara xewee bu dee kenn mu toog ci këram ne yàlla ci sa daraje yonent bi ci ormaam bi mu am ci yow ci wàccuwaay bi mu am ci yow tawal wala ñu defub géew dajaloo ñaan ko ci tur woowu wala boog te boobu même fi yonent bi sallallahu alayhi wasallam nekkee mënoon nañuy def noonu bu fekkoonte ne darajaam rek la waaye bi mu fi nekkee dañuy ñëw ci moom ñaan koo ne ko nga ñaan ku ci am yitte da ngay ñëw ne ko ñaanal bu dee yitte mbooloo mi ñu ne ko nga ñaan ci nangam ak nangam waaye duñ ko ci seen biir kër ne yàlla ñoo ngi lay ñaan ci barkeem ñoo ngi lay ñaan ci darajaam ñoo ngi lay ñaan ci wàccuwaay bi am si yow loolu soxul fenn ci sunna ne daanañ ko def loolu mooy teg loolu nag ci la ñuy sukkandikoo ne kon Omar bu ne bi ammi nabiyina li muy nattale mooy bi duaa i ammi nabiyina ci ñaanu bàyyi taxu sab yonent ñetteel ba ci liñ leen tontoo itam mooy li ñu firee wasila loolu mooy li xam itam ci jëflante nit ñi masalan tey boo amoon soxla ci kilifa bëgg am ku la defal tawassul ci moom maanaam ku la defar intermédiaire ci moom naka lay doon ndax da ngay ñëw ci kilifa bi ne ko ci màggaayu sa waa jooju xam ne waa ji naa bañ yëg sax de ci darajaam defal ma nangam déedéet da ngay dem ca waaja kay ne ko dama bëgg nga dem ñaanal ma patron bi waxal maa moom comme yow fonk na la nga ñaanal ko ne ko mu defal ma nangam ak nangam waaja day dem wax de day dem wax waaye bu caagee ne da nga fay bàyyi waaji fële ñoom ci patron ko ci màggaayu sa adjoint bi wala sa secrétaire bi ci darajaam di am fi yow defal ma nangam ko defee yaakaar naa ne sa mbir du lijjanti am maanaam nga dem gis ko nag moom ne ko yow daal sa waaj yi ni nga mii ne ni nga ko daal ma bëggoon nga defal ma ci intervention waxtaanal ma ak moom mu defal ma nangam ak nangam mu dem toog ak moom wax ak moom ah mën naa am mu defal la lool loolu ci jëflante nit ñi loolu lay demee ndax baatu tawassul bi loolu lay tekki ci loxo mooy ki nga koy jaare day am la mu def mais du jëmm ji rek du doy bu dee jëmm ji rek moom ba dama ci patron bi ne ko daal man kii laa ak kii laa fi indi sa secrétaire bi daal laa fi indi moom laa bëgg nga defal ma mbir mi ci ci moom ci dara jàpp sotti waaye mën na la caa defal moo tax itam se see sa digganteeg sa borom itam doo teg nit rek ci sa kanamu borom ndax itam borom bi tabaraka wa moo xam màggaay bi nit am ci moom ak daraja bi mu am ci moom ba tax na kenn du ko war a imposé naan ko ci daraja yi kii wala màggaayu kii defal ma nangam bàyyi fi moom yërmandeem bàyyi fi ngëneelam bàyyi fi léppam bëgg mu defal la ci màggaayu ko même yonente bi sallallahu alayhi wasallam néew ko ci sa daraja laa la defale danaa ko ci sama yërmande fa bi ma rahmatin min allahi même ci boppam sax bu koy defal da ko ko defal ci dara jàmm waaye ci yërmandeem ak mbaaxam la koy defal wa kaana fadlullahi alayka azima kaana fadlullahi alayka azima ngëneelul yàlla ci yow rëy na lool kon lépp loo am rek ngëneelul yàlla la bokk na ci lii gën a fedd li gën a leeral tawassul boobu Omar def lam wax ne innana bada wafaati nabiyina jina bil abbas amin nabi sallallahu alayhi wasallam wa talabna minhu an yad'u lana rabbahu subhanahu li bu fi yonente bi sallallahu alayhi wasallam jóge parce que daf na yàlla nun day dañu daan jokkoo ci sa yonente bi léegi nag ñi ngi jokkoo ci sa bàyyi taxu bi kon li nga ciy déggee mooy bi fi sa yonente bi nekkatul moom gëm nañ ne kon mënatuñu tawassul ci moom mënatuñu tawassul ci moom ndax niñ daan tawassule ci moom mooy ñëw mu ñaan léegi nag mi ngi ci biir bàmmeelam mënuñu ko ñaan loo loolu moo tax ñuy jëlee àllaas rek day leen de ndax xablu baa ngi ñu jege ko lool bu fekkoon te ne mën nañoo dem ca xablu ba ci mag daraja yonente bi sallallahu alayhi wasallam la ñuy jóg waaye jóg wuñ ci ñaanam ca xablu ba la ñuy dem waaye indi gi ak sàkku gi ñu sàkku ci moom ñaan parce que Omar tegul abbas rek waaye daf na ko ñaanal wa talab naa minhu an yadu ñu wax ne Omar da doon wane ak jawaas moo tax mu bàyyi ci daraja yonent bi jël daraja Abbas liñ leen doon toowaate mooy addis bi deful benn xam nga jawaas boo ko dee waree pour ne nanga ndagana boo defee benn yoon rek mu def mais kaana la wax isaa axasan naas Omar lii da ko def ay yooni yooni yoon yoo xam ne saa bu bekkoon amee moo Abbas su fekkoon ne dafa bëgg a wane ak dagan te benn yoon bu njëkk ba dong dana doy waaye yoon wu bekkoon ame rek ñu woowaat Abbas kon moo lay tekki ne ñaan gi lañu soxla te gis na ne ñaan gi mënatuñ koo am ci yonente bi sallallahu alayhi wa moo tax mu andi abbas moom kon lënt boobu loolu lañ leen ci tontoon omar tawassulul ci abbas waaye ci ñaanam la tawassul beneen subha bi ñu amaat muy beneen lënt lënt bi ñuy jéemoo sukkandikoo ñoom muy xadwis ak darir te moo doon kisil maxa ñëwoon ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko ñaanal ma bu saafara ma sama bët yi wér yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko in chita daawtu lak wa in chita axartu dalika fa huwa xayr bu la soobee ma ñaanal la waaye bu la boo bëggee itam ma yeexe ñaan gi ma dencal la ko ba ëllëg ne ko loolu gën ci yow te nga wéeg sa silmaxaa noonu rek te ñaan gi ma la ñoroon ñaanal ma dencal la ko pour ëllëg ne ko loolu gën ci yow nag waa ji ne ko ñaanal rek ñaanal ma rek yàlla moom ma wér yonente bi salaa salaam daal koy digal ne ko kon nga dem jàpp te nga rafetal njàpp mi nga julli ñaari rakka nga ñaan ñaan gii allahuma inni asaluka wa atawajjahu ilayka bi nabiyika muhammad nabiyi rahma yaa muhammad inni tawajjahtu bika ila rabbi fi xaajati haadihi fa tu fa taqdiya lii allahuma fa saffixhu fii wa saffix min fiya bi ko yonente bi sallallahu alayhi wasallam waxee loolu mu def ko bët ya dafa dal di wér su ko defee nag mu xaalifoon yi mooy ñi nga xam ne nag ñoom dañuy saxal tawassul ci jëmm daal ne kon lii tegtal la ci daganu tawasul ci darajay yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wala ci darajay keneen ci nit bu baax ni ndax ñu ne ñoom dafa jàngal waa ji moom yonente bi sallallahu alayhi wa dafa jàngal silmaxa si mu jotli ko ci moom jëmmi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam maanaam na jotli ko ci moom ñu ne ñoom loolu lañ déggee ne la yonente bi sallallahu alayhi yi sallam jàngal waa ji amma nag ñi nga xam ne ñooy al jumhur ñoom li ñu gis mooy dañu gis ne hadis bii tegtal la ci naw u saalis bi ñu waxoon mooy tawassul bi duaai rajulin saalih maanaa silmaxa si dafa tawassul ci ñaanu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ndax gis daf ne ko ñaanal ma yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daf ne ko ma ñaanal la ma bay mu ne ko ñaanal waaye mu digalaale ko pour moom itam mu ñaan moom itam mu def jëf ju baax julli ñaari rakka ñaan boppam su ko defee yonente bi sallallahu alayhi wa sallam itam ne ñaanal waaye du jëmmi tudd gum tudd jëmmi yonente bi sallallahu alayhi wasallam wala darajaam ndax ba bi jaay na tudd ko fenn ci biir ñaan gi waxul daraja waxul makaana waaye bi Muhammad la wax kon bi Muhammad li ñu fiy nattee mooy bi duaa i Muhammad ci ñaan Muhammad sallallahu alayhi wasallam parce que boo nee bu ma defal nangam war nañoo am na lañ koy nattale mooy moom la ko defale waaw mu ne diwoo ma dimbali mooy moo ma jox xaalis wala moo ma andil dëgg xam nga boo bëggee dimb dimb rek moom la dimbalee nga amoon ngénte ne am na dimbali ma ca dimbali am na mu tànnal am na loo tuddul ci façon dimbal bi nu la dimbalee waaw nga moom a joxal nangam moom andi saako ceeb moom andi am xar moom andi doon ci daale wala da ne moom la dimbali rek kon bu bi Muhammad li muy ca ñee kon bi jaahi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñoom loolu la ñuy nattale ñoom la ñuy nattale bokk na ca liy tegtal ne yonente bi sallallahu alayhi wasallam daf koo ñaanal da koo dig ne ko danaa la ñaanal ndax gannaaw nee na ko nga ñaanal ma te bi sallallahu alayhi wasallam lu mu digee da koy matale bokk na ci itam israar bi mu israar maanaam nuur bi mu nuur ci ne ko rek ñaanal ma ñaanal ma kon bu fekkonte ne tudd dara jaam dana doy rek dafa nekk di insister day dem rek ne yàlla ci daraja yonente bi sallallahu alayhi wasallam sama bët yi ñu ne itam bu fekkonte ne ci loola la gumba gi wére kon gumba yi dañuy continuer di ñaan ci loolu ba tey mi ngi fi kon di ci màggaayu yonent beeg darajaam te gisaatuñu même ci jamono yonent bi sallallahu alayhi keneen ku ci wér te jamono yonent bi sallallahu alayhi wasallam bari woon na ay silmaxa Abdullah ibn ne saxaaba bu la silmaxa la woon ak ñeneen te taxul ñu wér ndax ñoom mën naa na mënoon nañoo ñaan loo yonent bi sallallahu alayhi wasallam waaye comme yonent bi sallallahu alayhi ma na moom darajaam moo toll foofu ci mu bëgg a gis waaye bu dee saxaaba yu mag yi ñoom mën nañoo ba bëgguñoo gis ñoom waaw leneen yonente bi sallallahu alayhi wasallam di dem ci lu jub ëllëg buñ ko jéem a jël rek ci jamono ji kon moo lay xam ne ñaanam lay doon waaye bu fekkoonte ne dara dëgg la kon ñoom ñëpp rek dañ ciy ñaan dal di wér beneen seen lëntu lëntu ñetteel mooy nag al ahadis ad daifa mooy nag ay hadis yu yoo xam ne dafa nekk daif yenn yi sax nekk mawdoo yoo xam ne dañ koy andi di ko layale loolu ñuy layal ci tawasul bopp seen addis yooyu bu ñu ko seetee ci ñaari mbir la nekk addis yoo xam ne sax na sax na ci yonente bi sallallahu la jóge am na ci ñaari addis yi ñuy layee ñaari xaaj la addis yoo xam ne moom wér sax na ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam waaye nag tegtalewul ñoom lañ ko bëgg a firee tegtalewul noonu comme yi ñu jot a tudd léegi yooyu moom wér a ne ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam la jóge waaye nag liñ ca bëgg a wane ne lii lay tegtale moom tegtalewul lool beneen xaaj ba addis yoo xam ne sax moom mën naa tegtale lañ bëgg ñoom waaye nag saxul ne jógee na ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bari na lool dañ ciy tudd rek benn bi ci gën a siw yu bari di ko faral di wax mooy tawassalu bi jaahi fa inna jaahi inda allahi al azim ñenn ñi di ko solo isa saaltumullaha fasaluuhu bi jaahi fa inna jaahi inda allahi azim ñu ne yonente bi salaa moo ne leen jokk ci sama daraja dee leen ñaan ci sama daraja ndax sama daraja fa yàlla lu màgg la hadis boobu Cheikh Albani li mu jox daf ne haada baatilun laa asla lahu fi cheyin min kutubil hadis baatil mu ne amul benn cosaan amul benn téere hadis booy dem gis fa turu buy niru loolu wa innama yarwihi baadul juhaal bi sunna mu ne ñu réere sunna ñoo koy nettali cheikhul islam ibnu taymiya ci téere bi mu tuddee alqaidatul jalila fi tawassul bind na ci téere bu am solo qaida jalila fi tawassul cheikh albani bi bind na téere bu am solo ci tawassul moom itam ñi nga xam ne ñooy talabatul ilmi yi mën nañ ciy gën a yaatal ndax waxtu muhaadara moom da dul mën a feet li aju ci bunt bi yëpp ci ay subuhaat ci ay xadis yoo xam ne ñooñu andi nañ ko ak ay masala yu cee wax pour mën koo tontu waaye ko dellu ci téere yooyu insha allah da nga ca am refal ak lu mel ne téere docteur oustaz docteur Ahmed Lo taqdisul asxaas fi fikri sos gis ustaani bi moom itam wax na ci lu yaatoo yaatoo yaatoo ci wàllu tawassul ak xeetam yi yëpp yooyu yëpp ay maraajeex la yoo xam ne ku ca dellu da nga ci gën a am yaatu yaatu bu baax cheikhul islam ibnu taymi rahimahullah dafa wax ne maa ana jaahahu inda allahi azim nee na daraja yonente bi sallallahu alayhi wa sallam fa yàlla lu màgg la azamu min jami min jaahi jami al anbiyaai wal mursalin nee na moo gën a màgg darajay mboolem yonent yi walakin jaaha al maxluq inda al xaaliq laysa ka jaahi al maxluq inda al maxluq waaw nee na nag darajay mbindeef fa ka ko bind bokkul ak darajay mbindeef fa mbindeef ne moom waaw ñoom nag loolu lañ bëgg a xiyaas jàpp ne daal ni nga xamee ne boo ne daal directeur bi sama xarita wala maay rakam wala maay nangam daraja da nga am fa moom man ci loolu man ngi ci sukkandiku ba mu def sax lu mu bëggul woon a def ba demee ah aw ma pexe de rus naa la gannaaw yaa ma ko ñaan daal moom xaw ma nu may def waaw loolu nit da koy def dana am ku la jege koo xam ne ni mu mel ci yow bu ñëwee diis la mbir insisté ci nga nangam daal moom boo ko defalul daal man jàppal nga ne defalu ma dara kon kooku da koy fekk kooku nag bokkul fa yàlla yàlla moom kenn du ko santaas yàlla moom loo rëy rëy rëy daraja itam nag fa moom moom ab jaam nga fa rek abduhu wa rasuluhu moo tax buñ ko ci bëggee xayma bëgg ko see ba jàpp ne kon daraja jooju man nañ cee tawassule pour suñu borom defal nu la mu bëgg loola nekkul loo xam ne tegtal la bu wér suñu borom tabaraka wa taala amul kenn kuy tinu fa moom parce que loolu tinu la def intervention la te loolu kenn sañu koo def ci tàmbali lu dul dalaa jox ndigal te bu dee nit nag mën ngaa ñëw def intervention te joxu la ci ndigal ah dangay na dama laa soxla ah defal la ndigal ne la tidul ne moo la woo ne la kaay toog nga toog mu ne la su fa amee benn intervention kenn ñëwoo ba ñëw di def benn intervention kenn lu dul ne moo la ci la defal waaw ah te sooy defit intervention ba ngay def ci ku mu gërëm ñu def ci moom intervention nga koy def man da alladi yasfau indahu illa bi izni moo tax mu ne qul idu alladina saamtum min dunillah laa yamlikuuna mithqaala darratin fi samawati wala fi l ard wama lahum fihima min shirk wama lahu minhum min zahir wala tanfau shafaatu indahu illa liman adina lah gën wala tanfau shafaatu indahu illa liman adina lah nee na ab tiir jariñ te yàlla du dul comme jox ndigal comme jox ndigal rek kooka moo sañ a tiiru fa moom yow nag gannaaw borom daraja ja sax bu demoon ak ci kanamam bu ñemee wax lu dul ñu jox ko ndigal yow mi nga bëgg a jaar ca daraja ja yow doo a dem fa ca yàlla te joxu la ndigal borom daraja sax su demoon bu sañ a tiiru lu dul nañ ko jox ndigal man zal lati yasfau indahu illa bi isni yow nag nga ne ma damay àbb daraja ji yóbbu ko lijjanti ci li may lijjanti te borom daraja ji bu demoon moom du wax ma du feeñal darajaam kooku du sotti amaa nag tawassul bii ñuy wax lépp mu jëm ci wàllu ñaan bu dee fii ci nun nag ci wasiila dafa amaat beneen déggin boo xam ne sax daanaka ñu baree baree bare jàppewuñ ko ne loolu sax moom nit dana ko jàpp ma maanaam jàpp ne nit koo xam ne da koy teg sa digganteeg yàlla nga xam ne boo amee ngërëmam rek li nga bëgg ci yàlla lépp da nga koy am bu nga xëy ne yàlla ngay wut waaye nag ci kii nga koy jaar jéemoo xam lu yàlla lu mu digle jéemoo xam lu mu tere jéemoo xam luy sunna jéemoo xam ko yonente bi sallallahu alayhi wasallam yow dal kii nga xam rek lu digle la nga def lu mu tere nga bax loolu moo lay eggale nag ci ngërëmul yàlla loolu dégg ni wasila boobu am na fii ci nun am na xaw ma am na fi leneen déet mais nun nun wasila sax moom loolu lañ ko dégg yow kuy sa wasila waaw <laughs> loolu lay wax waaw kuy sa wasila sa wasila mooy kuy ci koy jaar ba dem àddina xam nga wasila nga ne jullit bi kuy sa wasila jullit bi fu mu dem àjjana nga ne kuy sa wasila luy sa moyen pour dem àjjana ñoom nag mooy boobu boo nee damay jàng alxuraan ñu ne déedéet damay woor ñu ne déedéet wax dañoo tudd nit koo xam ne mooy la mën a yóbbu da nga moo la yóbbu lañ lay wax diggin boobu nag lu doy waar la mooy bee borom bi tabaraka taala tontu ci ñaareelu aaya boobu ne ulaayika lasina yaddaoon ñi ngeen di woo xam nga ñooñu woowuñu yàlla kooka la ñuy bu ñuy ñaan sax moom la ñuy ñaan bu leen di digal duñ soxlaa xam dalil ndax moom ndigalam lañ soxla soxlawuñ ndigalul yàlla ndigalam moo tax duñ koo laaj lii aaya bu ko wax wala xadis bu ko soxlawuñ loolu ne wóor na ci moom la jógee rek moo doy kon moom la ñuy jaam loolu nag moom ah, lu doy waar loo xam ne sax moom dafay weesu tawassul ci leneen lu dul yàlla waaye sax jaamu keneen ku dul yàlla la parce que ñee sax moom yàlla lañ bëgg a jaamu waaye di ko jaare ci fu ñu ko kii ne moom daa koy yem ci kooku moom kooku lay jaamu waaw kooku lay jaamu bu boobaa ndax képp koo xam ne mi ngi lay jox ndigal loo xam ne du la wax fu mu jógee ci alquran du la wax fu mu jógee ci sunna yonente bi sallallahu alayhi wa sallam te jógewu ca ci moom rek la jóge nga di ko jëfe kooku buur la ci yow la ci yow booba loolu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam tollu woon tontu woon Abdi ibnu Xaatim bi mu déggee di jàng ittaxasu ahbaarahum wa ruhbaanahum arbaaban min duunillah yahuud yeeg nasaraan yi dañoo jël seen fóore yi ak seen labbe yi jàppe leen ay yàlla bàyyi yàlla te moom ca diina jëlee ñu nekkoon mu ne ah déet yonente bi salaa sallam man foofa laa nekkoon de waaye jàppe wuñu leen ay yàlla de yonente bi salaa sallam ne ko leen digal loo xam ne ci seen bànneex dong la jóge jógewul ci yàlla ñu def ñu ne ah kay ndax duñ leen tere loo xam ne itam ñoom la soob rek ñu tere leen ko waaye jógewul ci yàlla mu ne ah kay ñoom kay lu digle daal lu def luñ tere ñu baax duñ jéem a laaj fu mu jóge mu ne ko tilka ibadatukum lahu loola mooy seenu jàmm koo nangu loolu rek yaa ngi koy jàmm parce que yàlla li loolu rek la am ci yow defal nga def baal nga ba loolu yàlla amul ci boo ko jëlee déposé ko feneen koo kenn doon déposé léegi mooy sa ilaah léegi moom la doon afara ayta man ittaxasa ilaahahu hawa mën naa nekk sax sa bànneexu bakkan kon nag mbokk yi bunt bi la waaye bunt bu xam-xame la bu xóot la boo xam ne daanaka jàng ko ci ay xalaqaat ci dars ci lañ ko gën a mën a peege ci jàng ko ci am muxaadara muxaadara bi da leen di ubbil lumière yi mu rek ba ñu xam ne bunta ngi nii boo xam ne bu jar a la xëy na ci xalaqaat yi joxe fii docteur di ko fi joxe ak yeneen borom xam yi ñu ubbi ci buntu tawassul boobu jàngale ko jàngale mu leer ba kenn ku ne am ci tegtal yu wér su ko defee loolu dana tax ñu man koo peeg bu baax waaye daal ci gàttal daal ñu xam ne ñett yi xeeti tawasul yooyu daal mooy yi nekk masro booy ñaan yàlla ñaan ko ci turam yi ak ci melokaana bi kooku yàlla ko dégg walillahi al asmaul xusna fad'uhu biha mën ngaa tawassul ci sa jëf ju baax waaye loolu nag ah loolu sax moom ndax nag jëf ju baax ja mu leer la ne sell na yàlla rek a tax kooku man ñemewuma ko man waaye ñemewuma tawassul ci sama jëf man waaw parce que du ñun xamoo daal jëf ji lu mu mel fa yàlla parce que nag mu leer la ne fa yàlla nag parce que ci jëf yi li koy rax dafa bari lool dafa bari lool même boo ci bëggee mucc nit ñi la ci dugal ba ca def na nga tawasul ci du'a rajul saalih ñaanu ku baax ñaan it li ma leen ci wax mooy ka ngay ñaan loo képp koo gis mu métier woo ñaan bu ko ñaan loo ñaan bu métier koo gis mu métier woo ñaan rek bu ko ñaan loo ñaan bu métier ñaan moom du métier moom foog la sëriñu ñaan kan la am ñaan kan la déedéet kooku ay jibar la jibar yi lañ tuddee ay ñaan kat jibar la parce que day ñaan lu nga commencé fayoo def ko defee ma ngay fental boppam ñu mu ñaanal loola am bu dara tënd woon dara am ca lam ñaanoon loola ku ñëw dana la ko nettali da ko yokk sax waaw sa laaw diw sàngam dina fiy ñëw diw di moom du fi réccu boo doon diw nangam nangam kenn ku nekk mu tuddal la su loola amul mu fenn kon kooka mel na ndamoon ñaan ga su nangoo sax dafa dellu si ci moom moo man moom xam nga dafay bàkkoo kon day mel ne moom ñaanu xanaa daa def ko que soo ñaanee mu am nga koy bàkkoo naan ko kama ñaanaloon dama rëccu kon day mel ne ñaanoo da ngaa def danaag kama defaloon kay ngay wax ko kon nag loolu nañ ci bàyyi xel bu baax képp ku ko métier woo daal faj moom mën naa nekk métier faj faj moo xam ne nit ki da koo jàng tem am moo xam médecine moderne la wala médecine traditionnelle la te la ñuy fajoo rek dagan kooku jàng ko ba xam ko ko loolu ma mën naa nekk métier moom mën na caa fay yu jaayee garabam waaye ñaan moom ñaan moom du métier kenn warut a toog di xaar nit ñu ñaan lool yow nit sa liggéey boo dajee nit mu ne la ñaanal ma nga ñaanal ko yow itam ne ko ñaanal ma mu ñaanal la waaye jàpp ne yow yaa placé foo xam ne yow rek yow yaa war a ñaanal nit ñi loolu moom amul ndax yonente bi sallallahu alayhi wasallam ak daraja bi gis na abu Omar uh, ibn Xattaab ba mu ko tàggoo ne ko damay dem umra daf ne ko laa tansanaa bi duaik bul ma fàtte ci sag ñaan yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne Omar ne kaddu googu adduna ak li ci biiram kaddu googu ma ko gënal yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ma loolu ndax yonent bi ka muy ñaan loolu mooy nit ku baax parce que dañaa wax ne ñaanu nit la ñuy soxla kon gis na ne Omar ci nit ñu baax ñi ñu soxla seeni ñaan ci la bokk moo tax Omar bëgg ci kaddu googu lool kon nag yàlla nu yàlla defal tawfiq ñu ngi yemale bunt bi foofu li ci des bu fekkee am na ay leerlu ci mbokk yi loolu incha allah ñu def ko ci wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain jazakallahu xayran Hmm? ci la yoroon bi muy waxtaan kon de waxtaan jazakallahu xayran Cheikh Ibrahim kon ñun ñëpp ñoo bokk dégg waxtaan wi waaye mu mel ni muxaadara loolu du kon soññe na ci jàng waaye kon lañuy jàng ñu boole ci lu aj ci suñu pas-pas ba ban koo jàng njàngin mu leer loola danañu dimbale ñu xam ko xanin wu leer te loola it danañu dimbale ñu mën koo jëfee comme ni ko alquran ak sunna digalee kon euh, amul lu ñu ci yokk lu dul yenn bokk yi nga xam ne xay na am na ay lënt-lënt yu leen di sa leer ci waxtaan wi ñu bind seeni laaj di ko sàkkoo leerlu kon xay na ci loolu la ñuy ba loolu di jeexee wala ba jilli di jotee kon kii li laaj Cheikh Ibrahim dafa wax ne ndax dana dagan ci man ma julli ñaari ràkka yoo xam ne dama ci sàkkoo tawassul ci bi subhaanahu wa taala ngir mu génn ma ci tiis wóoru ma nekk mu jaaxal ma doonte tudd ko waaye loola moo tax may jóg di julli ñaar ràkka ndax yàlla suñu borom bi subhaanahu wa taala nangu sama ñaan ndax loolu dana dagan comme yonente bi saa salaam waxoon sunu ma xasul dana jàpp ndax bu sell julli ñaari rakkat tànn ñaan loolu masroo nga am yitte julli ñaari rakka ñaari rakka yooyu nekkul loo fent ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko digle kon boo ko defee yaa ngi ko teg foofu ci julli def jëf ju baax lim ne wal amalu saalix yarfa'u comme da ngay bëgg a ñaan sëñ ñaan nee na jëf mooy tax mu yéeg mooy tax mu dem ci yàlla te jëf ju baax dara jiituwul ci julli nga julli ñaari rakka loolu ñu mën a nekk la ci sunna la insha kii nee na day laaj ndax dana dagan ñu def tawassul ci alquran mubashara ndax it dana dagan yi tamit ñu def tawassul ci bi xaqi quran ndax loolu dana dagan waaw alquran sifa la min sifatil laahi subhanahu wa taala alquran melo la ci melokaani suñu borom tabaraka wa taala mu des na tawassul te di tawasul ndax boo ci tawasul yaa ngi tawasul ci meloon suñu borom tabaraka wa taala ci melokaanam yi nga bokk moom alquran sifatun min sifatillahi subhanahu wa taala ndax wa am la waxam la kalaamullah kon ci waxe suñu borom moom nga jokk ci ay turam doyam euh, jazakallahu xeer kii nee ne ñu ngi doon sunna di wax ne بكل اسم هو لك أو سميت به نفسك أو علمته أحد من خلق من من هم المقصود في كلمة خلق كان الذي جبل في كلمة خلقك أو علمته أحدا من خلقك su ko xam ne suñu borom tabaraka wa taala da koo xamal loolu moom yonent yi lay doon yàlla aalimul xaybi falaa yusiru ala xaybihi ahadan illa man irtada min rasul illa man irtada min rasul aalimul xaybi falaa yusiru du feeñal min xaybihi ahadan illa man irtada lu muy kum gërëm min rasul kon bu amee ci liggéey bi ñu mu ko xamal lu mu leen di xamal ñooñu yonent si nekk keneen koo xam ne yàlla dafay beral di ko dencal di ko xamal loo xam ne jarul ca yonent ba ñu loola moom du am parce que yonent bi moom mooy bunt bi ci lay xam ne lépp bu fekkee lu mu war a jot li la su ko defee mu jot li ko su fekkee nag loolu wax digganteem ak boroomam rek la def loo xam ne moom daal yitteelu leen loola moom bu boobaa bañ koo jot li ko dox digganteem ak boroomam waaye mbir ma muy xamal loolu moom ab yonent rek lay doon ndax borom wax ne wa ma kaana li rasul wa ma kaana li basar an yukallimahu llahu illa waxyan aw min waraa xijaab aw yursila rasul fa yuuxi bi iznihi ma yasa waxyu waxyu la yàlla di wax ak bindeef waxyu nag ab yonent la koy defal wàllu gi rek ay façon la wax ne mën naa nekk ilham lu mu jékki-jékki di ko yëg nii rek mu yonent bi wala bu nekk ndaw la ñu yebal mu yor melokaanu nit ñëw comme hadiisu Jibril boobu ñuy jàng malaaka bi yor meloo nit ñëw moo tax man aw yursulu rasulan waaye lenn lu ci nekk rek wax yu la tudd moo tax man jafe bi jeexal ne fa yooxi bi iznihi maa yasa te nee na lu dul loolu yàlla du wax nit maa kaana li bashar la wax an yukallimahu llaahu illa waxyan aw min waraai xijab waxi gi malaaka ko indi min war a xijaab nag mooy loo xam ne moom malaaka du ko indi comme ni mu doon waxee ak Moussa bi muy wax ak Moussa malaaka du kenn doxul ci diggante bi waaye nag Moussa gisu ko kon am am na baaraas bu dox ci diggante bi mooy min war a xijaab waaw comme ni ma doon waxee ak Moussa mooy min war a xijaab dara doxul ci diggante bi mi ngi dégg mel ne malaaka doxul ci diggante bi waaye nag gisu nee na façon boobu rek la mën a yàlla moom la yàlla waxee ak nit te loolu ab yonent moo ko am kon. aw allamtahu min xalqika jooju kon foofu lañ koy déggee moo tax mu ne la masala boo ko dee dégg rek da ngay dellu ci aaya ya mu ànd ak xaddis ya mu ànd doog koo dégg parce que loolu ay nit ba mel ci ubbee bunt ah ñun yàlla daf maa xamal loo xam ne nee na aw allamtahu ahadan min xalqik yàlla xamal na ma loo xam ne xamal ko ñu ci des déedéet yàlla lu lay xamal moom ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bu dee lu wér foofu lay jógee même bu dee loo gént ñu la koy jàngal ka wax gémmal boo yeewoo natt ko ci sunna bu fekkee jàng nga gëstu ko ci téere yi ba xam bu ci amee nga xam ne kon yàlla boo la defal tawfiq yombalal la ko xamal la ko foofu wala nga laaj yi xam sunna su fekkee nag mboolem ñu xam sunna alquran ak sunna yi kenn xamul ci loolu nga wax gis ñu ko ci loolu am na lu mu seytaan la waaw moom lislaam moom nee na maam yi seen ala Muhammad waxoon xam dëgg la du ñaari ñaari dëgg ak ñett amul benn dëgg am te ñett mooy li wàcc ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam maa nuzila ala Muhammad wa huwa al-haq min rabbihim kon lu wàcc ci moom rek dëgg boo ko géntee koo ko mën a déggee te yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jàngalewu ko loolu du dëgg kon foofu lañ koy def. jazakallahu xeyran kii dafa wax ne ndax li ñu wax ci anwaaru tawassul bu ñetteel bi bi duaay rajulin saalix muy laaj ndax loolu jigéen dana ci tàbbi wala góor rek lañ ko jagleel ah waaw jëfati sax xanaa dañu jëfandikoo baat rajo waaye day jigéen bu baax itam kay xam alquran sunna ragal yàlla di jaamu yàlla kay kay man kooku mu ñaan wéyam rek wéyam rek li muy amee min zakarin aw unsa la borom wax man amila saalihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayaatan tayyiba min zakarin aw unsa fa ulaa'ika yadkhuluuna al-jannata ñoo jëm képp foofu illa al-muslimuuna wal muslimaat wal mu'minuuna wal mu'minaat ba ayaba jëf ñoo yem képp jazaakallaahu xayran kii nee na li ñuy laaj mooy waxi Ibnu Taymiya li nga wax ci biir muhaadara bi ne al aslu fi l ibadat al manu maa lam tarit an nassu fii mu ne tax loolu moom ijtihaad la ci Ibnu Taymiya wala déet ak ñun lan moo ñu war ci euh, wax joo xamante ne si dafa duggee koo ci Ibnu Taymiya waaw Ibnu Taymiya kenn ci borom xam-xam waaye la muy wax daf koy jànge ci alquran ak sunna la ko jële suñu borom gis nañ ko muy ŋàññi kuy jéem a doxal ci diine loo xam ne yàlla yoonanu ko am lahum suraka shara'u lahum min ad-din ma lam ya'zan bihi llah maa lam ya'zan bihi llah ya'zan isne isne kon loo amul isne loolu la tuddee man ko loo amul isne lu muy tudd man ko lu la kenn joxul ndigal kenn la ko tere lu la kenn joxul ndigal kenn la ko tere loolu alquran la foofu la ko jële maa lam ya'zan bihi llah képp kuy def ci diine loo xam ne yàlla diglewu ko nee na kon ndax da ngaa am keneen koo boole ak yàlla ku lay jox ndigal am lahum suraka diine yàllaa koy saraa lakum min addiini la saraa lakum min addiini maa wasa bihi nuuha diine yàllaa koy tëralal boppam saraa lakum min addiin maa wasa bihi nuuha te biir saaro bi ne am lahum suraka saraoo lahum min addiin maa lam yasan bihi llah parce que kon foofu lañ sukkandiku maa lam yasan lépp loo xam ne lam yasan bihi llah rek mam noo lu ngeen la joxe mu ndigal la jëfee ko rek da koo tere jaamu yàlla mu ngi ci digalul rek la ko def kon foofu la ko sukkandikoo kon ak déggam la ci aaya bi ak nag ci jëf yi mu yonente bi sallallahu alayhi wasallam ak saxaaba yi amul ci dara lu ñuy yekki yekki toog jaamu yàlla bu rek dañ lay wax aaya ba ko digle masrox la buñ lay wax julli wa aqimu salaa wa atu zaka buñ lay wax toog kutiba alaykum salaam tuubu ñu ma yàgg rek ñu naan na jàpp ne ne woor baax na nan woor waaw waaw aj makka walillahi ala nnaasi xijjul bayt tuubu ñu ma yàgg rek ñu ne daal nañ aj aj daal yaakaar nañ ne baax na rek nañ ko def déedéet lenn lu ci ne jaamu yàlla bu nekk am na dalil am na masrox yi alquran ak sunna léegi nag nga fent loo xam ne amul loolu nga kon ku la ko dëggal kon loola dañ la ko tere te borom bi daal alima akamal su lakum xam nga bu njëkk ba ne mat na fekk na ma dama mën na foofu laayam waaye lu ngeen xam ngeen yokk ci da ko nekk la lool lu ngeen xam yokk leen ci waaye daf ne mat na jeex na al yawma akmaltu lakum diinakum diine gi farbi naa ko tëj naa ko jeex na wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al islaama diinan diin l'islam bii yonente bi sallallahu alayhi wasallam nekk tey bi aaya bi wàcc ak isaama boobu lee gërëm muy l'islam bu ci kenn yokk dara bu ci kenn wàññi dara al islaam la wax ni rek war rabi di lakum islaam man islaam waaye mu doon wax bu yonente bi sallallahu alayhi wasallam yoroon na aqida ya mel na jaamu yàlla mel na booba lay wax booba lee gërëm mel wa raditu lakum al islaama diinan jeex yàlla lu mu gërëm ba noppi rek ci ah, baax mat na sëkk léegi loo ci def rek amoo ndigal da ngay yàq leen moo tax kon kenn waru cee yokk dara kenn waru cee wàññi lim daanee laaj bi ndax lan mooy suñu war ci wax bi di ko ci ibnu taymiya wax du wax bi jógee ko ci ibnu taymiya lan mooy war a nekk suñu taxawaay waaw mooy kuy mel ne wax bi jógee ci bépp jaarub yàlla rek boo xam ne borom xam-xam la dañuy xool dañuy mën ñu xamtali ndax lu mu yore te bu ñëwee ci noonu borom xam-xam la buy jottali rek te moom itam yàlla dogal la borom xam-xam yi nga xam ne dañuy waxee dalil ci la bokk li mu day waxee dalil ci la bokk kon buñ ne rek lu jóge ci moom rek loolu moom yonente bi sallallahu alayhi la ñuy lu jóge ci moom rek wa ma ataakum rasul faxudu wa ma nahaakum anhu fantahu kooku yonente bi sallallahu alayhi wasallam dong ko am keneen comme mën a doon xul haatu burhaanakum in kuntum saadiqin andil sa preuve andil sa dalil bu fekkente ne projet mën nga koo xam baax na nga gis soo ko mën nga xam nga laaj comme ni mu laaj léegi ne waaye suñu mu wax fu mu ko teg waaw soo gisee gënuñ la ba rëpp nag bu fekkente ne yow loola euh, doy na sa dégg ah nga jàpp ca su fekkente ne da ngaa gis yeneen adduna yuy wax tapaanu loola itam te nga egg ci dara jàpp mën a tarjeex seet ban moo ci jëloon su ko defee nga topp moom su fekkee mënoo loolu nag ah nga dellu ci borom xam-xam yoo xam ne doy loolu nga leen su ko defee lañ la ca wax ndax itam nag ñaari weer benn nga jàng ba mën a seggal sa bopp xam wala moom nga doy loo ñu jàng di leen nag fasalu ahla zikr in kuntum la taalamuun waaye te xaw ma waaye kenn xamul itam nag du sotti loolu moom du sotti ba am na ñu xam moom. kii nee na li muy laaj dafa am ñoo xam ne dañuy woote woote yegg nañ ci yàlla mu ne ndax doomu aadama mën na yegg ci yàlla. ndax loolu war na ci alquran benn dëri koy firndee wala ci sunna ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla moom fi ñuy yàgg mooy ci ngërëmam ci ngërëmam lañ mën a yàgg ma jëmm yàlla di moom kenn du ci yàgg waaw ku ci yàgg loo koy def <laughs> yàlla yàlla moom <laughs> mooy que ci ngërëmam la ñuy yàgg moo tax gisee terminér yaa ayyatuha nafsul mutmainna irji ila rabbika radiyatan mardiya gis nga radiyallahu anhu wa radu anhu wa ridwanun min allahi wa rahmatun minhu xayrun mimma yajmaun ridwanullah ci la ñuy yegg ngërëmul yàlla boo ci xasee yegg moom seen mu dëggal la nga dugg lépp am ngërëmul yàlla mooy yemukaay bi waaw gis nga ko ulaika hum xayrul bariya jasaahum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtiha al anhaaru xaalidina fiha abadan lu ca topp radiallahu anhu wa radu an zalika liman xasiya rabba leneen tëggu ci ridallah moom boo xasee rek jeex na wa ridwanun min allahi nee na ridwanun min allahi wa rahmatun minhu ak yërmande ju bay xayrun mimma yajmaun moo gën loo dajale kon foofu la yamukaay bi kon egg ci ngërëmul yàlla la xëy na nag waxee ni moo ko ñu gàttal ne egg ci yàlla rek mais ci ngërëmam la ñuy wut moom la ñuy egg. lii ay aaya yi ci rox si la ñuy sàkk ak leer bi ci njëkk mooy wax si borom bi subhanahu wa taala bi ñu wax huwa alladi fi samaai ilaahu wa fi l ardi ilaahu ruuxiya ni mu nekkee loolu tekkiwul ci jëmm ji loolu ñuy jéem a wax naan yàlla fépp la nekk ñooy lay aaya boobu waaye loolu uruuxiya bi la mi ngi mel ne tey même ci adduna ci nit mën nga ko cee misaal mi ngi mel ne nga ne président bi mooy président Dakar mooy président Fouta loolu ci nekkul Fouta ngóoram gi moom wala yiri ci gi fépp la nekk suñu borom tabaraka taala ca jëmmam la ci aras waaye nag ci uluhiya nga xam ne kuy jaamu moom rek nga war a jàmm foo mën a nekk ci kaw suuf uluhiya moo fa nekk uluhiya mooy la fi samaai ilah wa fi ardi ilah nguuram bépp moom lépp moom moo koy buur mooy ki ko yilif boo demoon ba tey bu bu dëgg laaj leen kuy seen président président bi bi dina waa Dakar di wax lañ la wax nga dem ko wax boobu lañ la wax nga dem Ndar boobu lañ la wax te te ci nekku fa foofu jëmm ji moom nekku fa waaye nag président te moom mu nga moom nag mooy seen président yàlla kon boo laajoon waa malaaka yi kuy seen buur yàlla lañ la wax nga laaj li ci kaw sax kuy seen buur yàlla lañ lay wax ñi fi am taw di gëm yàlla yàlla lañ lay wax fu mu def nekk rek yàlla lay wax kon mooy mooy buur fépp waaw jazakallahu xayran kii moom muy muy laaj loolu benn laaj la mu ne maa nga xam naa qawluhu taala fama bakat alayhim as-samaau wal ardu wa ma kaanu munzirin waaw loolu waaw Firawna lay wax ba mu alko moo ko nitam nga ne asamaan jooyu leen parce que asamaan day puukarewoo ñu baax ñi mu tiim ñi mu tiim ñuy jaamu yàlla suñu fi jógee day am naqar ci loolu waaye nag fekkente ne ñu kàccoor lañ ñooñu la borom bi tabaaraka wa taala wax ne ñooñu asamaan jooyu leen maanaam yëgul seen jóge fi sax maanaam ñu jóge fi sax xanaa moo ko gënal amuñu foon daal benn njariñ li muy teg rek mooy seen dund bi amul woon njariñ seen dund bi amul benn njariñ ba asamaan ak suuf buñ ci jógee duñ leen faal asamaan si day kerloo di puukarewoo ñu baax ñi mu tiim suuf di ñu baax ñiy dox ci kaw ñu baax ñiy dox ci kawam suuf day bëgg ci loolu moo tax bu day mel ne da leen a jooy xanaa dafa dafa wéet ci ñoom daal daf jooyu naqar lu dogalub yàlla waaye wéetaan nga la wala bëggoon nañu continuer nekk wala ñàkk na loo xam ne daal bëggoon na ko lool amaa ñooñu nga xam ne dañoo bonoon nag muy firaw nag ñëpp àndal ñooñu la borom bi ne fama bakat alayhim samaau wal ard ñooñu asamaan ak suuf jooyu la kii muy laaj mu ne maanaam naa koy woo taala wa takunanna min al-mushrikiin illa alladina farraqu diinahum wa kaanu shiyaa ah, waaw foofu borom bi tabaaraka wa taala dafay tudd melokaani ku bokkaale daf ne bu leen bokk ci ñi bokkaale mel nag mel na dañu war laaj ne waaw ñi bokkaale moom nu ñuy mel mu ne mooy ñi tàqale seen diine ñu def si ne farraqoo diinahum wa kaanu shiya'an diine ji fu ñu ko rek li muy tekki mooy dugal na ci leneen lu ca bokk parce que kenn ku ne boo yemoon ci diine ji tàqali ko diine ji boo ca yemoon fa ko yonente bi sallallahu alayhi wasallam bàyyi woon rek du ko kon saa boo keneen la la juweeloo keneen da nga dugal loo xam ne moom àndu ca moom itam mu dugal loo xam ne yow it àndu ca loolaa ñu moo tax mu ne min allasina farraqu diinahum wa kaanu siyaan kullu xisbin bi ma ladayhim farixun bi ma ladayhim gis la lañ yor lañ yor ñoo ko ca defal seen bopp comme ni ko rek kuréel benn am seen i werd am seen i forme yu defe la def am seen i xew léegi lu nekk ñu amal ko seen ay xew sax dañ koy ci l'islam rek li yonente bi sallallahu alayhi wasallam jàngale woon kon du ñu tàqaliko kon tàqaliko li koy andi toujours mooy ibtidaa ibtidaa muy fent ci diine day andi tàqaliko ibtidaa fent ci diine bu gisee dina ñu tàqali yëpp mooy yi ñu fent dugal ko rek mais ku bàyyi woon ci mbir ma fam yem rek nit dana nekk kon mosu leen a déggal ko mosu mais yéen a bokk lépp lu ngeen nekk ndax alquran ci la ne sunna ci la ne mais saa boo dugalee dara la nga xam ne ngeen dajee tey tey mu gis yow loo xam ne lii moom mosu koo gis moom te jàppoo ne nag jullit la xolo day daal di day daal di différence seen diggante yan différence seen diggante ngeen composé ngeen ànd day daal di jafe kon euh, loolu la borom tabaraka wa taala melokaanu bokkaale la mooy am na lu ñuy dugal ci diina lu jógewoon ci yàlla ndax daaw saa boo dugalee ci diina lu jógewoon ci yàlla loolu bokkaale la am na keneen koo booleeg yàlla moom la naan am lahum suraka suraka suraka la ko tuddee képp ku lay digal ci diina ji ngay def lu ci bokkut kookee boole nga ko yàlla nangu ngeen ko nangoo ne mën naa dugal ci diine lu ba kon meekaaru bokkaale borom bi tabaaraka wa taala tudd foofu laaj ko wax bi jeex na hmm. kon nag mbokk ñu ngi leen di nuyu di leen siyaar bu baax di leen nenn ko bu baax itam Euh, suñu mbokki jullit ñoo fi nekk yoo xam ne suñu mbokki lislaam nag ñu bari képp ñoo gis ak dañu profité ci occasion bi siyaare leen kenn ku ci nekk mu mënoo da ñëw sa kër dama lay siyaare wala mu ñëw jox la loxo kon nag maa ngi nuyu ñëpp di leen siyaara di ñaan yàlla mu dëgëral ñu suñu mbokkoog lislaam boole ñu ci ñi nga xam ne rek mbokkoo boobu day sax ba bu ñu dugg biir aljanna ko borom bi waxee wa nasaana ma fi sudurihim min xilin ixwanan ala sururin mutaqabilin yàlla ko yàlla euh, rek weeru koor wi ñu nekk am na buntu sàkku tuyaaba bu mag boo xam ne buñ ko di sàggane muy li ñu tuddee iftaaru saim muy togloo ku woor di ci nekk ci tuyaaba rëy na lool nga xam nga li gën neex ci tuyaaba gën ci rëy mooy ñu fay la tuyaaba joo xam ne yow jëfoo xam nga bu ñuy xisaab moom ka jëf xisaab waaye yow mi nga xam ne moom dangaa def loo xam ne yow nga ca tiyaa ba rek lam légal la bañ di ko fay rek yow lañ lay fayal amaa moom lañ koy calculer ak yam sa boole ca bokku tax yow sa sa yëpp ci yow ndax yow jëfoo kon am tuyaaba joo xam ne jëfoo ko lu am solo nga xam ne te aadama tëleem dafa bari ay atam dafa néew su fekkente ne li muy am lépp mi ngi yem ci li muy fàggul boppam mën naa am li muy am bu bari moo tax ngay war di sàkku tuyaaba ci ñeneen kenn ku nekk benn jullit bu ne ab tool nga ci sa morom da nga ji ji dara ñor la ko ni ngay demee ci suuf si xam nga suuf si boo demee di ci gerte ki xamul ma ne da ngay may suuf si gerte ndax da ngaa yor saako gerte yëpp suuf ko ci biir suuf si nit ma ne ah waa ji ne may na suuf gerte waaye bis boo gerte boo déqee da nga doon wut ci dem mën a am da nga ko yan woon sax wala nga tegoon ko ci saret mais booy deqi camion nga indi kon da dem doon yokk sa tuyaaba ci moom kon ki jël a jox la itam naan kii may na diw téeméer déedéet day wut ci moom tuyaaba day di ko ci kii bi tabaaraka wa mu am junni wala mu am leneen yow loolu da ko moom moo tax ku xam ne dëgg dëgg dëgg sax boo mayee nit yaa koy sant yaay li dimbale ma ma may la <laughs> dimbale ma ma sarxal ah parce que tool bi da ngay toogal tool naan dimbali ma toogal ma fii tool tool dañ koy defal ne la di ci fay tool bi ngir def sa jiw ngir mu sax mu ne récolté ko yóbbu doomu aadama bi tam noonu nag jamono bii nga xam ne nag bu doon ci nawet dañ doon nawet bu nangu la muy koor nag loo ci def loolu day sunu lool yonente bi sallallahu alayhi wasallam ko woor da am lu toll ne tuyaaba jëm am ci kooram te du wàññi ci kooram dara kon tuyaaba ju a sàkkal kon nag moo tax ñuy fàttali mbokk yi loolu dañ ko ci bàyyi xel suñu dajee ci dajal yu mel nii lu mu néew néew rek yonente bi sallallahu alayhi wasallam xaritu la wax ittaqu naara walaw bi shiqqi safara doonte xaritu tàmbara ma koy joxal loolee lu néew néew néew néew moom xaritu tàmbara moom na ko am suñu borom tabaraka taala moom xeebul ci looy def ngir yàlla dara néewu ci dara waaye xeebul ci dara itam kon nag ñu ngi fàttali mbokk yi loolu am na mbokk yu toog na yoo xam ne lu leen ca jox rek danañ la ko defal ci ay ndogu yoo xam ne rawatina nag ñu koy joxe ñoo xam ne itam wax dëgg yàlla ñu ñu yaakaare seenu góorgóorlu lañu ngay dogal ñoo xam ne yàlla moo xam waaye ñuy jéem a góorgóorlu lañu ci wéral seen tas-tas wéral seen i jaami daal teg ko ci sunna maanaam ñu nangoo xaju rañu daal mais ku wér moom yàllaa ko xam waaye kon nangoo naan garab rek moom moom moom tànn nga waaw te képp kuy góorgóorlu naan garab waaw kooku nag kon bu bopp yëpp yàggee ñëw xam nga xam ne bu ñu daal di jot ne da ngay feebar nga nekkul ñëw da ngay feebar waaye bu ñu génnee feebar nga tey mën ngaa naan garab gi rek kooku moom tane waaye nag moom moo wér nag moom ci ëpp ëpp naa wax <laughs> moom moom loolu daal ñoo nangoo naan garab waaw kon nag yàlla na yàlla wéral ndogu yooyu kenn ku ne la mu ci mën na ko def te buñ ko defee yàlla na ko borom bi tabaraka taala nangu barakallahu fikum hmm. baax na kon jazakumullahu xayran kon euh, ñu yëgal mbokk yi rek ne ngoon bu nekk am na ay tas yu am euh, tàmbali six heures ba euh, ay sept heures quart ngoon bu jot am na tas yu am te am na tas yu am ci jàngale kitaabu sharia bu imam Buxaari muy mbokk saa su ma fekk ma koy six heures yi ba secteur cadre kon loolu ku nekk am na étage yu ñuy am ñu koy bàyyi waat seen bopp yi benn mooy am na waxtaan bu ñu am suba ci dimanche bi lépp onze heures la amee le soir mu aju ci asbaabu intisaaru chia fi xarbu xeweya maanaam sabab yi nga xam ne moo tax chia yi tasaaroo ci zone bi Afrique de l'Ouest dafa am ay effet yoo xam ne wala ay sabab day cause yoo xam ne moo waral chia yi ci at yi ñu mujj ñu tasaaroo bi loolu buy ay yëngu incha allah loolu dañ ko jàngal suba ci ay tomb suñu mbokk Abdoulaye Sall sa jëmmat Daara Gueye suñu projet si xam nga xew kon on se fait xam nga incha kon baax na jazakumullah xeyran ñu ñëpp ñoo ko déggandoo kon suñu borom programme ci aleykum salaam wax na ko